naa ñu def an nahaara bëccëg gi maashan mu nekk bërëbu bu ñuy utee lu ñuy dundee wa banay naa ñu def fawqakum seen kaw ñu tabax ci seen kaw sabaan juróom-ñaar juróom-ñaar yoo xam ne nii shidaadan way dëgër lañu mooy asamaan yi yàlla mu ne def maa ko def ñoom asamaan ñu nekk juróom-ñaar tiim leen te yooyu yëpp de yu dëgër lañ wajaal naa ñu def sirajan kandiye, mooy ab lamp ñu def ko ci asaman sa wahajan muy tàkkaakoon te mooy jant bi wa anzal naa ñu wàccee min al muxsiraati jëlee ci andoh yi maa an ndox moo xam ne nii sajjaajan aju dotti la li nuxrija ngir ñu génnee bii ci ndox ma habban pepp wana batan ak wa jannaatin ñu def ci ay tool alfaafan yu di fatt mooy ñu def ci ay tool yoo xam ne ne yu sëq la tool yu naat mu ne ki nga xam ne moom moo def lii lépp am na kàttanu dekkal ku dee ba tax na bu ma la waxee ni dinaa la dekkal war nga koo gëm inna yawmal fasli naka bisab teqale bar kaana nekk na miiqaatan di seen waxtu wi nga xam ne mooy seen rendez te kenn du ko tardé de te su boobaa yàlla day teqalee nit ñi ñi baaxoon mu dugal leen àjjana ñi daawut jaamu yàlla bu leen jéggal mu dugal leen safara mu ne loolu kañ la mu ne yow ma yun faxu mooy bis ba def na wal fi suuri ca buftu ba yàlla digal asraafil ne ko na wal buftu bi ginnaaw bi mu ko boolee woon yoon wu njëkk wa ñëpp dee woon mu walaat ko ñëpp war a dekki mu ne bu ko fee nag fataatuuna ngeen di dikk afwaaja nekki mboolooy mbooloo loolu nag muaaz ibnu jabal nee na dafa am bis malaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yawma yunfaxu fi suuri fataatuuna afwaajan loolu mooy lan mu ne yonent bi tontu ne ko ey Muaz yow ya de laaj nga ci mbir mu rëy mu ne ba ma ko waxee nag mu ne mu toog ba si yàgg xool mu ne ma ñooñu de fukki xeet lañ yoo ya, xam ne ya nii yàlla da leen di ràññeel ci biir jullit ñi am ci ñoo xam ne nii day soppi seen melokaan mu nekk melokaanu golo am ci ñoo xam ne dañuy nekk melokaanu mbaam am ci ñoo xam ni dañ leen di jatt seen tànk yi ak seen bopp yi boole am ci ñoo xam ne nii dañuy nekk ñu silmaxa am ci ñoo xam ne nii dañuy gumba tëx duñ xam fu ñu jëm am na ci ñoo xam ne nii dañuy màtt seen làmmiñ yi ba muy tàllalu di jëm ba ci seen dënn yi nga xam ne sax li nga xam ne mooy dëttuwaa njar wa di génn ci seen làmmiñ yi comme li nga xamee ni noonu la lor gi di génne seen gémmiñ yi noonu lay mel mu ne ñooñu nag ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci béréb booba dañ leen xool waaye dañ leen di bañ ndax xet bu bon gi nga xam ne mooy génne ci ñoom mu ne am na ñoo xam ne nii seen loxo ya ak seen tànk ya dañ koo dagg am na ñoo xam ne nii dañ leen di ci ay dat ci garab yoo xam ne ci safara la moom garab ya am ci ñoo xam ne nii seeni xeet dafa mel ni médd mu nekk mu xasaw xunnu te kenn du bëgg leen jege am ci ñoo xam ne ni dañ leen yi solal ay yére yoo xam ne ni ci goudron lañ ko defee mu taqaloo ci seen der yi mu ne ñii mooy ñii nga xam ne moom la yàlla di wax naan fa taatuuna afwaajan mu ne nag ma firi la kenn ku nekk lan la mu ne ki nga xam ne dañ koy soppi melokaana mu nekk melokaanu golo mooy ki nga xam ne danaan dox ci nit ñi di wut seeni xibaar ngir tasaare ko wala mu bañ koo tasaare mooy nit ñi di nëbb bëgguñu kenn xam ko ñoom ñoo ko daan luññutu ba di ko xam buñ ko xamee nag moo xam tasaare nañ ko wala tasaare wuñ ko ñooñu la yàlla di soppi golo ña nga xam ne dañ leen soppi ay mbaam xuux mooy ñi nga xam ne dañ daan lekk ger da dem soxla benn mbir waaye ba nga ko soxlaa nga ñëw waaja la koy defaral nga jox ko dara ngir mu gën a gaaw mu ne yooyu mooy mooy ger de ñi nga xam ne nag dañ leen jatt ci seen kanam yi mu ne mooy ñi lekk riba ñi nga xam ne dañoo silmaxa mooy ñi nga xam ne dañ daan àtte te seen àtte ya daawul dëggu ñi nga xam ne dañuy gumba tëx te duñ xam fu ñu jëm mooy ña nga xam ne dañ daan def lu baax ba pare di ca mu naan ay li def ak a baax ñi nga xam ne dañuy màtt seen làmmiñ yi ba muy dagg mooy boroom xam-xam ya ak attekat ya ñi nga xam ne seeni jëf dafa wuutee ak lañ daan wax ñi nga xam ne seen tànk ya ak seen loxo ya dañ leen a dagg mooy ñi nga xam ne dañ daan lor seeni dëkkandoor ñi nga xam ne dañ leen di daaj ci datti tàndarma wala ci datti garab yoo xam ne ci safara la mooy ña nga xam ne dañ daan dox jëm ca nguur ya di fa yóbbu xibaaru nit ña ñi nga xam ne ñoom la seen xet gi di ñaaw ñu amee gu bon bu mel ni mbedd mu ne mooy ña dañ daan xéew rek nekkoon ci li nga xam ne moo neex seen bakkan ak la neex ci loolu lañ nekkoon waaye daawuñu sax joxe àqu yàlla ji nga xam ne moom moo leen war ci faqiir yi génnee ko ci seen alal jox leen ko daawuñu ko def ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy solal ay yére nag yoo xam ne nii safara lay doon mu ne ñooñu mooy ña nga xam ne dañ daan rëy rëylu di puukerewu ci seen moromi nit ña te ñii ñëpp ay jullit lañ lañu doon woote ne ñoom ay jullit lañ waaye buñ demee bis penc noonu la leen yàlla di def mu ne loolu mooy yawma yunfaxu fi suuri fa taatuuna afwaajan mooy bis bi nga xam ne da ngeen di ñëw ci kanam borom bi subhaanahu wa taala ngeen nekk ay kuréeli kuréel yu wuute wa futixat ubbeef asamaawu asamaan fa kaanat mu nekk moom asamaan abwaaban di ay buntu fu nekk rek malaaka xotti wàcce mu nekk ay buntu nag yu bari wa suyirat doxalee fee aljibaalu doji doji yépp yàlla jàpp leen mokkal leen na leen doji jóge leen fii doj dootu fi nekkati moo tax mu ne fa kaanat mu nekk ñoom doj ya saraaban mu nekk yaa dem nekk pënd bu ñu tasaare inna jahannama naka safara de kaanat nekk na mirsaadan di aji foglu li taaxiina ñeel way beew ya ma aaban mu nekk delluwaay laabisiina way sax lañ fiihaa ca safara axqaaban ay diir yu yàgg baatub xuqub ci arab li muy mooy ans juróom ñetti fukki at mooy benn xuqub bu dee yu bari la nag nga def ko axqaaban mooy kon dangay compter par quatre-vingts quatre-vingts bu nekk nga ni benn beneen quatre-vingt nga ne ñaar di ko compter noonu mu mel ni rek ki compter par dizaine wala par centaine ne dix vingt trente wala nga ne cent deux cent trois cent yàlla nag fii ni mu koy compter mooy par quatre-vingt la dafa ko ne quatre-vingt muy benn beneen quatre-vingt muy cent soixante mu nekk deux noonu nag la ko tëralee ne ahqaaban lim ci nam rek mooy dinañ sax ca biir safara diir bu yàgg boo xam ne nii nit mënu koo natt ci ay at mu ne laa yaduquuna du ñu mos fiiha ci biir safara soosu bardan benn sedd wala sharaaban du caagin genn naanit ñu ko fay mën a am duñ fa mën a nekk di nelaw nelaw yu feex duñ fa amit lu sedd loo xam ne nii dinañ ko fa mën a naan wala ñu ko fay mën a lekk wala keppaar goo xam ni nii dinañ fa mën a nekk di fa serlu ñu ne loolu lépp duñ ko fa mën a am de duñ fa mën a amit ak naan mu ne lan lañ fay am mu ne illaa xamiman lu mooy ndox mu tàng rek moom lañ leen di jox buñ bëggee naan dañu indi leen ndox moo xam ne nii day tàng jër ba boo ko jàkkaarloo ak moom rek sa kanam gi yépp daa di wàjju mel ni lu ñu lakk ba mu meeg mel ni mis wi mooy yashwil wujuuhu bii sa sharaabu wa saat mu ne loolu mooy ndox mi nga xam ne moom moo nekk ci biir safara képp ko ne fa dugg loolu nga fay naan mu ne ndax loolu rekk la mu ne déedéet am na it leneen luñ fay naan mooy waxa saaqan dëtti wànjar dëtti wànjar mooy dëtt boo xam ne nii dafa ànd ak deret ndaxte ñoom ña nekk biir safara buñ leen di lakk seen yaram wi diw gi nekkoon ci seen yaram wi day day génn loolu nag moom la ñuy boole buñ bëggee naan ak deret ja muy àndal jox leen ko loolu la ñuy naanaat moo tax mu ne illaa xamiman wa xassaaqan nga ne yàlla kii de xanaa def na lu rëy rëy moo tax nga fayee ko lii te li nga ko fayee metti na ba xanaa defut lu toll noonu yàlla ne ah kay jazaan fay la rek wifaaqan bu dëppoo ak lam doon def ca àdduna lam doon def loolu rek lañ ko fay waaye yokkaluñ ko ci dara de innahum ñoom kaanu nekkoon nañ ci àdduna laa yarjuuna yaakaaruñu woon ne xisaaban xisaab dina am ñoom ba ñuy nekk àdduna dañoo yaakaarul woon ni dinañ dee ñu dekkal leen ba pare xisaab leen kenn ku nekk seen jëf loolu moo leen yóbbee ñu dugal leen safara wa kaddaboo ñu weddi woon bi aayaatina suñu alxuraan ji kiddaaban ak ak weddi wa kulla shayin lépp lëf rek ci seeni jëf yi ahsaynaahu takk nañ ko ba bind nañ ko kitaaban cib téere téere boo xam ne nii du réer du maxe téere boo xam ne ni du sànku te it amul leen luñ cay bind muy far mu ne loolu mooy lawxul maxfuuz fa zuuqu mos leen azaabakum fa mos leen seen mbugal mi falan naziidakum duñ leen dolli illaa azaaban lu mooy ay mbugal rekk lañ leen dolli de ñooñu mooy ña xam ne bi nekk àdduna daawuñ jaamu yàlla gëmuñ woon yàlla gëmuñu woon dikku bis penc yàlla mu ne ñooñu def fii la ñuy mujj ñeneen ña nag ñooy ñan mu ne innama faasa naka texe lil muttaqiina ñeel nañu ragal ñi yàlla ñoom ba ñuy nekk àdduna dañoo ragaloon yàlla daa ko jaamu daa ko jaamu ci ni nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam defee woon moom ak ay saxaabaam mu diglee woon ko te bañ koy def nag jël ci jublu rek anamuk yàlla gi mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo texe ñooñu nag diñ lañ leen dugal xadaaiqa ci ay tool waa naa ba naki raisin mooy àjjana ya nga xam ne foofu la ñuy dugg mu ne yooyu day mel ni ay ay jardin ci rafet waaye foofu dinañ ci am ay raisin yoo xam ne nii bu moom la fay lekk wa kawaaxiba ak i jongoma yoo xam ne nii moom lañ leen di may ñu nekk seeni soxna mooy xuurun iin ya te ñoom xuuru in yooyu atraaban ak maas lañ moom maas la doon mooy magante wuñu te fi mën nga fee am ay soxna boo demee ba jëmmi jamono nga jëm mag ñi nga njëkkoon a takk nekki màgget yow it nga daa takk keneen su boobaa kon nekkuñu ak maas waaye dañoo magante waaye ñee fee nag bis penc ñiy dugg àjjana soxna yeñ fay am ne ñooñu atraaban ay mas la don doon kenn du mag sa morom ñoom ñëpp ay gone lañuy doon de wa kaasan dinañ fa naanit ay kaasu sàngara waaye sàngara soosu day nekk di xaaqan muy aji fees buñ ko naanee nag laa yasmauna doo dégg fiyaa ci àjjana lawan benn mboosóor wala kidaaban du caageen benn ak weddi loolu mooy lan sàngaras àdduna sii neexut dafa weqat ba pare nit ki bu ko naanee xelam mën na caa muuro bu xel mu muuroo mën naa wax luñ naan cam mën naa defit lu ñoo xam ne buñ ko déggee ne cam waaye melul ni bu àjjana ba nag moom boo ko naanee sa xel mi du ci muuru waaye doo ci jëlee it métitu bopp amul lenn loo xam ne nii dina nekk conséquence ci naan sàngara soosa lu dul rek nga yëg ak na muy neexee waaye mu wuuteeg bu àdduna bi de moom moo tax yàlla kii biñ ne lii lañ koy may ca jana mu ne ah kii de xanaa kon yow yàlla danga kaa faral mu ne déedéet faraluma ko waaye am na lu ma ko ca may nag ndaxte li nga xam ne moom la doon liggéey buñ ko ko fayoon kon amaan na dina egg jamono joo xam ne nii lam liggéeyoon jeex waaye nag moom xéewal yi mu nekk du jeex mukk de moo tax mu ne jazaan mu nekk ak fay min rabbika bu jóge sa borom waaye ataan mu nekk may nag xisaaban ñu xisaab ko xisaab bu yomb loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadis bu buxaari ak muslim ñoo ko génnee woon ñu ne jëlee nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy wax naan mu ne amul kenn koo xam ne nii liggéeyam li muy jëf moo koy dugal àjjana ñu ne ko ba ci yow ki yàlla yoni mu mi ba ci man mii du man sax sama jëf moo may dugal àjjana xanaa kay yàlla may ma rek ci ak yërmandeem loolu moom mooy dugal àjjana de waaye du sama gor góorlu kon moo tax wax ne jazaan min rabbika ataan hisaban mune rabbus rabbu samawaati ki def lii te am kàttanam mooy borom asamani wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk kooku arrahmaanu mooy yàlla mooy ki nga xam ne lépp luy xéewal moom moo leen ko defal laa yamlikuuna du ñu moom minu ci moom yàlla xitaaban genn ak kàddu amul kenn koo xam ne nii dina dem ba ci kanamu borom bi mu am kàddu gum fay wax loolu nag sant yàlla mi nga xamee nii yàlla wax nañu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam firi ko yàlla mu ne bis penc amul kenn koo xam ne nii dina fa am kàddu goo xam ne nii lay wax ñu ko fay déglu ñépp rek ay jaam lañuy doon yàlla dong moy moy nekk buur Kudul dul rek jaam nga amul kenn nit ku ñuy jox parole mu naan xamoon naa ci diw nangam ak nangam wala diw ko ko xam laa ñoo daan ànd di def nangam ak nangam wala mu ne kii kat sama ngóor la woon man la toppoon ku baaxoon la yooyu yépp amu fa lan moo fa am li fa am mooy yàlla nee na kenn du fa jël parole dafa wax menn mbir te loolu yonent bi alayhi wax na ko ci bu imaam muslim radiyallahu anhu moo ko génnee mu ne walaa yatakallamu yawma idin illa rusul wa daawa rusulu yawma idin allahumma sallim allahumma sallim mu ne bis amul kenn kuñ fay jox kàddu lu mooy kooku ab yonent la te yonent mooy ñi xam ne ñoom lañu yàlla wax ni moo leen yónni ci téere bii képp koo xam ne sa tur nekkul ci téere bii yàlla na yonent nga buñ la waxee yonent nga it nax nañ la bu dee yow yaa wax ne yonent nga sosol nga yonent bi sosol nga yàlla ndaxte yonent bi alayhi salaatu bokk na ci kàddu yu mu mujjee wax neamna ay fenkat yu mat fan yoo yo ne ni sama ginnaaw dinañ fi ñëw di wooteeg yonent mu ne te yonent mom jehe na ci man yonent amati kon képp ko dégg ñu ne la yonent la dañ koy nax rek moom it muy nax boppam bu dee nangu na ko su boobaa bu ci boromam dina ko ko layoo ndaxte moom weddina wet dina sunna moo tax yàlla ne bis penc yonent yi rekk ñoom la ñuy jox kàddu te ñoom seen kàddu ga lenn rekk lañuy wax mooy allahuma sallim yow yàlla ñi lay ñaan jàmm rekk lañuy ñuy wax kon bu ñu yaakaar ni dinga am koo topp wala koo yakar ba boo demee mu ki sama ngóor a man la du fa am ndaxte kooku nga yaakaar bu dee yaakaarut yàlla yaag moom la nara boole dugal safara te kenn du ci mën dara kon moo tax ne laa yamlikuuna minhu xitaaban amul kenn koo xam di dina fa am genn kàddu gum fay wax lu dul koo xam ni nii yàlla moo ne ko waxal waa bu dee ki nga topp nag daa dem ba foofu yàlla joxu ko kàddu kon yow foo jëm te loolu nga yaakaaroon li wér te wóor mooy képp ku jaamuwut yàlla dangaa nar a torox te loolu sikk nekku ci moo tax yàlla mu ne yow ma yaquumu mooy bis bi nga xam ne dina taxaw ar jibril wal malaayikatu ak malaaka yépp sa fan ñu nekk di sàppe mu ne laa yatakallamuuna du ñu wax illaa man lu mooy ka nga xam ne adina digal na ko lawu ñeel ko arrahmaanu yàlla loolit it mi lay xamal ne la yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci xéewalam la may ñenn ci mbindeefam yi ñoo xam ne dinañ leen fa jox kàddu muy yonent yi ak malaaka yi moo tax mu indi baatub rahmaan ndaxte yàlla bu ko sooboon loolu du fa am kenn ku nekk dangay ñëw rek ñu peeseel la say jëf bu baaxee baax na bu bonee bon na waaye du am ramm te ramm waxoon nañ ko ci ginnaaw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom am safaatul kubra mom dina ramu ginnaaw yonent bi yenen yonent yépp ñoom dina dinañ rammu ñooñit am na ci borom xam-xam yi du nini yalla ñoo xam ne dina len may ñoom it dinañ alquran dina ramu koor gi nit ki woor dina ramu kon bari na dina ramu te yooyu yëpp alquran indi waye borom bee yoyu kenen ko deg ñu ne la moy rambu bis pénc nax nañ la motax tax mu ne laa yatakallamuuna illa man adina lahu arrahman wa qaala mu wax rek na sawaaban wax ju jup la fay wax moy li yent bi wax nan allahumma sallim allahumma sallim yàlla mu ne daalika loolu al yawm moy bis ba haqq bi di deug faman man shaa ku neex nak ittaxada mu jàpp maaban delluwaay ilaa rabbi jëm ci boromam yéen a ngi nii wax naa leen li xew ku mu neex na jaamu yàlla ku mu neexut na jaamu leneen wala mu bañ a jaamu dara innaa ñun yàlla andarnaakum wattandiku lew leen nañ leen azaban mbugal moo xam ne ni xariban aji jege la mu ñi leen di waar di leen wattandiku loo mbugal moo xam ne nii yàggut de balaa yàgg mu egsi mooy bis penc yow yanzuru mooy bis bi nga xam ne dina xool almaru nit maa lépp li nga xam ne xaddamat jiitaloon na ko ya daawu ñaari loxoom wa yaquulu di wax nag alkaafiru yéeféer bi mu naan yaa layta nii yellente woon man kuntu ma nekkoon turaaban suuf yàlla mu ne bis penc mooy bis bi nga xam ne waa ji nga xam ne jaamuwutoon yàlla lépp li nga xam ne defoon na ko dañ ko koy indil ci kanamam jóoral ko ko ne ko lii lépp yow yaa ko defoon te dara baaxu ci su boobaa nag lay gis moom yéeféer bi yàlla ni muy def suuf mu ne tiyalente woon man ma nekkoon suuf ba tey kenn duma xisaab nar maa dugal safara mu ne loolu nag naka la yàmmee mu ne xaakim génne na ci mustadrak mu ne loolu mi ngi am ci ba nga xamee ni yàlla boole na mbindeef yépp moo xam nit la wala jinne wala bàyyi ma ñépp rek ñëw ca bisu pang ma buñ fa ñëwee nag yàlla daal di ci bàyyi ma yi ñoom lay njëkk a xisaab kon ku yaakaar ne xisaab amul yaa ngi nax sa bopp ndegam bàyyi ma yi sax yàlla da xisaab ba bàyyi ma bi nga xam ni dafa amoon ay bëjjën mbëkkoon beneen bu amutoon bëjjën sax yàlla day def boobu fayu ca morom ma mu ne buñ ko defee nag ba pare mu daal jël bàyyi ma yépp ne leen nag yéen nekk leen suuf ñoom ñu jeex mu ne booba nag la yéefee bi di gis ne ñii nekk nañ suuf kon du ñu dugg àjjana du ñu dugg safara ñu ne woon yàlla yi te ni kuntu turaaban yellente woon man ma nekkoon suuf ba tey kenn duma dugal safara sile suuratu naaziaati màkka la wàccee ñeen fukki aay ñoo ci nekk ak juróom benn yàlla na bismillahi rrahmani rrahim wan naaziaati giñ naa ci malaaka yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñëw di génnee ruuxu yéeféer bi ci yaram wi xarqan ci bif mooy ñoom bu ñëwee ci yéeféer bi di génn ruuxu gi dañ koy xëcc ak doole di ko béf ndaxte dañ naan ko yow de yaa ñu tere woon jaamu yàlla ñi ngi nekkoon fii rek di bind say bàkkaar yu bari ya ba tax na amuñu woon jotu jaamu yàlla ñooñu nag ñoom malaaka yooyu dañuy koy bif di ko génnee ci yaram wi su boobaa nga gis waaja nag mu ngi nekkee métti wu jéggi dayo ndaxte noonu ñu koy bifee te duñu am nag ci moom benn yërmande day metti ci moom ba jéggi dayo moo tax bari na coo xam ne ni yaa ngi ko gis ni muy deewee deegu metti muy tëbëg a dal di yuuxu ak a jooy te xamuloo yow lu tax loolu li ko waral mooy malaaka yi nañu génnee ruux gi ci yaram bi moo metti mu ne wan naashitaati giiñ naa it ci malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy sigre di am mbégte bu ñuy génnee ruuxub jullit bi ci yaram wi nashtan ak sigre moom jullit bi nag moom moo wuuteeg yéeféer ba ni ñuy génnee ruuxam te loolu lépp yàlla jàngaloon nañu ko ci biir alquran yonent bi alei salatu wasalaam nettali na ne nit ki bu fekkee ni malaakul mawti da koo dikkal mu war a dee bu dee jullit la dañuy dem ca àjjana ya jëlee fa ay musuwaar yoo xam ne day ànd xet gu neex malaaka yi ñëw bu ñëwee ci nit ki xet googu ñu ko koy tegal ci bakkan bi mu koy noyyi mu koy neex lool te du yég ni nga xam ne noonu lañuy ñuy génnee gi ci yaram wi ci loolu lay nekk rek di ko xool moom àjjanaam tàmbali na te deewagut ci noonu lay nekke ba ñu génnee ruux gi buñ génnee ruux gi nag ñu daal jël ruux gi daal koy lëmës ci musuwaar yooyu nga xam ne ñoom lañu indaale woon jëlee woon ko àjjana yëkkati ruux gi nag di ko yóbbu di ko yóbbu ci kaw asamaan asamaan bu ñu egsi rek dañ leen ubbil naan leen ah yéen de xeet bu neex gi ngeen àndal neex na ba jéggi dayoo ñu ne kii de ruuxu diw la muy doomu diw ak diw moom jullit la woon bu baax bu daan jaamu yàlla dundam gi yépp da koo def ci jaamu yàlla ñu ne ko ndi texe na ñu jël ruuxu ba yóbbu ko ci àjjana ya buñ ko fa yóbbu nag mu taseeg yeneen ruux ya nga xam ne ñoo ko fa jiitu woon ñu ne ñu koy laaj nag mbiri àdduna naan ko ana diw ak diw ak diw ñi ñu bàyyi woon suñu ginnaaw mu naan leen diw de ma nga fa kii de mi ngi nekk ci jaamu yàlla waaye diw mee ab kàccoor la moom ci nangam ak nangam la ne mu leen indil xibaar ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi te deewaguñu ñoom ruux yo ñu mujj ne kooku kat dañ ko bàyyi mu noppalu ndaxte dafa jóge ci këru coono mu yàddu na mu ne nañ ko bàyyi mu noppalu loolu mooy jullit ba waaye yéeféer bi bu dee mi ngi bëgg a dee malaaka yi dañuy ñëw bu ñu ñëwee indaale melokaan yu jéggi dayoo ci ñaaw ñuy xëccee ruuxu gi di ko bif buñ ko génnee ba ruuxu gi génn ñu teg ko ci béréb béréb boo xam ne dafa mel ni lu ñagas la mu xasaw xunn ci lañ koy teg yéegale ko asamaan buñ demee ba ci asamaan yi ñu naan leen yéen de li ngeen fii indi xet gi xet gu bon la mu ne xet bii mooy waa ji nga xam ne moo dee mu nekkoon ab yéeféer ruuxam ba moom lañu indi moom de daawut jaamu yàlla dafa weddi woon bis penc daawut julli daawut woor daawul génne asaka ñu ne kii de fii moom du fi dugg mu ne ñu daal bàyyi ruuxu ga muy daanu te loolu lañ doon jàng ca ginnaaw nga xam ne buy daanu doo xam sax fan la jëm muy daanu rek jëm ba ci suuf ñu bil ko buntu suuf yi mu dugg ba ci jaxiim dem dem safara mu ne kooku moy ruuxu yéeféer bi moom noonu lay noonu lay mujjee moo tax yu bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xamee ne noonu la ko Qurtubi indee ci tafsiram bi mu ne dafa am benn bis ki nga xam ne mooy Jaafar ibnu Muhammad moom moo ko solo mu ne dégg naa sama baay te kon mooy Muhammad mi ngi naan dafa am benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax mu ne dama toog rek ma gis benn waay ci waa Ansaar ma gis malakul mawti mi ngi nekk ci boppam fi nga xam ne foofu la bopp bi toll foofu la fi malaakal mawti féete mu ne yonent bi wax malakul mawti ne ko ey malakul mawti na nga am yërmande ci sama saxaaba yi nga xam ne dañ ma gëm mu ne malakul mawti daal di koy tontu ne ko yow ki yàlla yónni mu ne ko dalal sa xel te nga xam ne ñun malaaka yi nga xam ne ñooy génnee ruuxu nit ñi ñun dañoo yërëm jullit ñi yërmaande koo xam ne ni mënoo ko sax natt te nga xam ne amul kenn ku nekk ci kaw suuf moo xam fépp fu mënti dëkk même bu dee dëkkuwaay wa dañ ko tabaxee ay birig wala ñu tabaxee ko suuf wala sax ñu defar ko ñu defar ci ay kawar lañ ko tabaxee moo xam ci ndox mi la dëkk wala ci suuf si la dëkk amul kenn ci nit ñi lu dul bis bu nekk dinaa xool ay mbiram juróomi yoon dinaa ko ko xool ndax xool ndax bis bi muy dee jot na wala jotul mu ne ñun ni ñu xamee nit ñi sax ñoom xamee ko seen bopp amul kenn koo xam mi ngi ci kaw suuf di dund lu dul bis bu nekk dinaa xool téeréem juróomi yoon moo xam la wala ndaw la mu ne ey yow Muhammad xamal ne yoo bi gën a tuuti sax mënumaa jël ruuxam lu dul yàlla moo koy digal bu ko digalu duma ko mën a jël mu ne loolu moom la yàlla di wax di giñ ci malaaka yooyu nga xam ne ñoom ñooy rocci ruuxu nit yi mu ne wan naaziaati garqan wan naashitaati nashtan mu ne wa saabiqaati wa saabixaati giñ naa ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy féey ci asamaan yi sabhan ak feey di dem di def ndigalal borom bi fa saabiqaati géej naa ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy di jël ruuxu jullit ñi sabqan ak wal mudabbiraati géej naa ci malaaka yooyu nga xam ne dogal amran ci mbir mooy yàlla wax leen mbir def leen ñoom ñu def ko lan la yàlla di giñ te jawaabul xasam bi file mu ne yàlla li muy giñ foofu mooy yéen yéeféer yépp yàlla dina leen dekkal ngeen taxaw ci kanamu borom bi képp kenn ci yéen mu fay ko jëfam loolu la yàlla di giñ de mu ne loolu kañ la mu ne yow matar jufu mooy bis bi nga xam ne dina rëng-rëngi arraajifatu aji rëng-rëngi ja tatbauha di topp ko arraajifatu aji topp ja loolu mooy lan alquran mooy firi boppam ba tax na loolu la koy firi mooy lañ jàngoon ca ginnaawu yàlla doon wax naan wa nufixa fi suuri fa saxiqa man fi samaawaati wa man fi l ardi summa nufixa fihi uxra fa ida hum qiyaamun yanzuruun tarjufu raajifa mooy bis bi nga xam ni yàlla day wax malaaka ne ko walal buftu bi ñëpp war a dee mu ne bu walee buftu bi te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na ni malaaka bi fi mu nii mi ngi toog jël na buftu bi teg ci gémmiñ gi ndigalul yàlla rekk lay xaar ngir mu ëf ko te bu ko fee ñëpp deewandoo mu ne ko malaaka bi moom pare na ñun kay noo nekk ci àdduna rek yaakaar ne àdduna du jeex ba tax na kenn ku nekk nekk ca la ko neex waaye mu ne bu nga xamee ni wal na buftu nag su boobaa lépp loo xam ne nii mi ngi woon ci kaw suuf di dund léppay deewandoo moo xam nit la woon walla jinne la walla malaaka la wala mbindéef la bu ñu xamul lépp rek ñooy deewandoo gàncax geeg bàyyi ma gi léppay dee mu ne loolu mooy yow ma tarjufu fa ndaxte rëng-rëng gi nga xam ne suuf dina ko def kenn ku nekk rek fa nga taxawoon ni mbépp daanu dee loolu mooy tarjufu raajifa bu boobaa nag ñépp deewandoo amatul kenn kuy dund ku nekk ci kaw suuf ñu nekkee noonu ab diir bu soob yàlla yàlla nag daal di digalaat malaaka bi ne ko na walaat buftu bi ñaareelu yoon bi su boobaa ñépp war a dekkiwaat nag mu ne loolu mooy tatbauha raadifa bu walaatee buftu bi ne ee yéen yax yu fënax yi ee yéen yàpp yu ñoppatikoo yi ee yéen kawar yu tasaaroo yi jóg leen wuy seen borom su boobaa kenn ku nekk fa mu nekkoon rek mu jóge fa dellu si waat ka nga xam ne ndox mi moo ko lekkoon mu jóge ca ndox ma dellu si ki nga xam ne rabu àll wi moo ko lekkoon mu jóge ca biiru rabu àll wa dellu si ki nga xam ne dafa tasaaroo woon ci biiru rabu àll yi fu ne am lu fa joge mu dellusi si ki nga xam ne safara moo ko lekkoon ba mu jeex tàkk mu jege ca doom ba dellu si amul kenn koo xam ne nii bis boobu bu malaaka bi wootee di nga tardé loolu mooy tatba'uha fa yàlla mu ne bu boobaa qulubun am na ay xol yoo xam ne nii waajifatun ay tiit lañ yow may din keroog absaaruha seen gër ya xaashi'atun aji buqeeku lañ yaquluna dañuy wax naan a inna ndax ñun lamarduduna ñu ñuy delloo lañ fil xaafirati ca li mu li fi ne woon li jiitu mooy dunduga ndax dees nañu dellooti àdduna ñu nekkaat ñuy dund aida kunna ida kunna bu ñu nekkoon idaaman di yax naxiratin yu ràpp qaalu ñu ne tilka loolu de idan boobale karratun aw akkin la xaasir mu perte mooy ñun dañ naan kat ndax dinañ delluwaat àdduna di dundati yàlla mu ne loolu kay yéen koy wax rek waaye du am fay innama hiya naka moom moom walun wu ñaar wi yàlla mu ne zajratun aw jàjj la bu di benn fa ida cig betteel hum ñoom mbindeef yépp bi saahirati ngi nekk ci béréb boobu nga xam ne nelaw amatu fa nekk na suuf soo xam ne nii fi ñuy fangee nit ñi kenn dootul talati lenn kenn ku nekk boppam lay tal yàlla mu ne foofu lañuy nekk bis boobu xalaataaka dex dikkalut la woon xadiisu Muusa waxtu Muusa wa aha jaaroon na fi yàlla mu ne is naa daahu ba woowee ko rabbu boromam bil waadi ca xurwa al muqaddasi bu ñu sellal ba te mooy tuuru siinaa yàlla ne ko idhab demal ila firawna nga jëm ci firawna innahu moom moomu de taxa beew na fa qul wax la hallaka ndax ñeel na la ila an ba nga sell wahdiyaka mu jubal la ila rabbika jëm ci sa borom fa taxsha ba nga ragal ko faaraahu mu wan ko al aayata kéemtaan ngaal kubraa wu way màgg waaye firawna fa kadaba mu weddi wa asaamu boromam su ma topp àdd bara mu joxe ginnaawu yasaa ma ngay dox ci suufuk misra ga ak rëy fa xasara mu boole lëlëm ba fa naadaa woote fa qaala mu ne ana man rabbukum maay seen borom di way kawe mu ne waxuma sax ne am na beneen yàlla bu ngeen di jaamu waaye bu amee beneen yàlla yi man firawna maa yàlla ji gën a kawe de fa axadahu jàpp ko allahu yàlla nakaala laaxaati mbugalum allaaxira wal uulaa ak àddina mu ne yàlla daal koy mbugal mbugalu àdduna te mbugalu àdduna boobu mooy labal gim ko labal ca ndox ma te ginnaaw ga nag mbugalum allaaxira mi ngi ñëw te bu ñëwee boobu mooy gën a metti mu ne inna fii daalika naga nekk la ci lii la ibratan xalam li ñeel ki nga xam ne yaxsha dina ragal boromam antum ndax yéen ashaddu xalqan yéen a gën a jafe ci mbind ami sama wala asamaan moo gën a jafe mbind yàlla mu ne bu ngeen weddee dikkug bis penc di ak seenu dekki ndax dangeen a yaakaar ni leen yàlla bindee dafa jafe moo tax ndax ni leen yàlla bindee moo gën a jafe wala yàlla bindee asamaan moo gën a jafe moo tax mu ne banaa tabax na ko rafa yëkkati na samkaha talaa yem ba fa sawaaha mu yemale ko wa axtasha mu jaxase laylaha guddeem gi wa axraja mu génnee duhaaha leeram ga wal arda suuf si baada dalika ginnaaw loolu daxaaha yàlla moo ko tàllal te tàllal googu yow mi nga xam ne yaa nekk ci suuf danga yaakaar ne dafa tàlleeku waaye ndekete tàlleeku waaye dafa mel ni ab nen loolu mooy dexya mooy daxaaha dafa wërngalu te wërngalu bi melul ni bal nga xam ne côté yépp a yam waaye dafa am ci benn côté bu ci suuf bi boo xam ne nii moom moo gën a tuuti beneen côté ba loolu mooy daxaaxaa mu ne axraja génnee na minaa ci suuf maa ahaa ndoxam ma wa maraaha ak parluwaayam wa loolu mooy lan mooy yow yow nit li nga xam ne moom ngay lekk ka naan yàlla moo la ko defal ci suuf waaye bàyyi ma it ci li nga xam ne moom lañ leen yóbbu ju koy lekk ak naan loolu mi ngi ci kaw suuf loolu mooy maraaha mooy parluwaay yi wal jibaala doji arsaaha yàlla moo leen saxal ci kaw suuf ba nga xam ne day mel ni moom moo tee suuf du daanu mu yàlla nag mu ne loolu lépp maa ko def mataan mu nekk xéewal lakum bu ñeel leen wali anaamikum ak seen juru kër gi fa ida jaat ndem dikk na nag a taamatu njuuma la alkubra wadi way màgg te mooy wal gi nga xam ne malaaka dina ko wal walub ñaareel bi ñëpp war a dikk mu ne boobu mooy attaamatul kubra mu ne yow ma yatadakkaru mooy bis bi nga xam ne dina waaru di fàttaliku al insaanu nit maa lépp loo xam ne ni saa doxoon na ca jëm ci àdduna bu baaxoon mu nekk ci kanamam bu bonoon mu nekk ci kanamam lépp rek lañ koy indil jooral ko ci kanamam yàlla mu ne bu boobaa wa burrizat jegelee fee aljaxiimu safara li man yara ñeel képp ko xam ne nii dina ko gis fa maa man daal ki nga xam ne taxaa dafa bewoon ba weddi yàlla waa dara mu gënoon a bëgg mooy mu ëfal alxayaata duniyaa dundu àdduna bi fa inna aljaxiima naka safara hiya moom almawaa mooy tappuwaayam ki nga xam ne moom bi muy nekk ci àdduna àdduna rek la gënoon a bëgg ba tax na lépp lu mu ngir àdduna la woon yàlla mu ne kooku safara moom mooy tàppuwaayam mooy sax waayam de waa maa man daal ki nga xam ne xaafa dafa ragaloon maqaama rabbihi taxawu boromam wa nahaa mu tere an nafsa bakkan ba anil hawa ci bànneexi bakkan kooku fa innal jannata naka àjjana hiya moom almawa mooy tàppuwaayam mooy waaja nga xam ne bi muy nekk àdduna lenn dong moo ko yitteeloon mooy lépp lu mu ciy mi ngi xalaat bis bi nga xam ne dina taxaw ci kanamu boromam war a layal loolu nga xam ne def na ko wala wax na ko yàlla mu ne kooku nga xam ne moom mel noonu kooku la ñuy dugal àjjana de te àjjana jooju mooy nekk sax waayam moom la yàlla doon wax naan fariqun fil jannati wa fariqun fi sair ñenn ñi dañuy dugg àjjana waaye ñeneen ñi dañuy dugg safara mu ne yasaluunaka ñi ngi lay laaj ani saati ci dikku bis pénc ay yaana mursaaha kañ la ak teeram naan bis ci mii ngeen di wax te wax ji bari ci lool moom kañ la moom kañ lay ñëw yàlla ne fii ma ci lan anta yow min dikraha nga nekk di ak tuddam mooy dafa mel ni yow danga kaa xam moo tax nit ñi ñëw ci yow di la ko laaj te yow xamoo ca dara yaag ñëpp yéen ca yam mu ne ilaa rabbika jëm na ci sa borom muntahaha ak dayoom xam-xamu dikkug bis ki kefeeñ ci yàlla mu ne moom dong moo ko xam innama ànd naka yow mundiru man aji waare ki nga xam ne yaxshaaha dina ragal bis pénce yow daal ki nga mën a waar waar wa di ko jariñ mooy ki nga xam ne moom bis bu nekk mi ngi fuglu boppam ci dikkug bis pénc de kaannahum daanaka ñoom yow ma yaraw naha bis bañ koy gis moom bis pénc day mel ni rek lam yalbasu saxuñ woon ci àdduna ak seen bàmmeel ya illaa ashiyatan lu muy génn ngoon rek aw duhaaha wala benn yoor yoor lañ def ci lañ def ci kaw suuf buñ leen laajee neen waaw yéen ñaata jamono ngeen saxoon ci kaw suuf ñoom dañuy tontu ne ñu nde genn ngoon dong lañ fay def matu ko sax mi ngi tolloog rek benn yoor yoor mooy matul sax bis walla genn wàllu bis waaye ay jamono ju néew lañ sax ca kaw suuf suuratu abasa màkka la wàccee ñeen fukki ay ñoo ci nekk ak ñaar ci bopp saar wi yàlla mi ngi ci yedd yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne da koo jëfoon moo doon lan dafa amoon benn silmaxa bu tudd abdullahi ibnu ummi maktuum nekkoon na ci ñi nga xam ne dañ daan noddal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax na yonent bi daana wax mu naan bu leen bàyyi di lekk ak naan lu dul da dégg abdullahi ibnu ummi maktuum noddam ndaxte bilaal moom day nodd ci guddi mooy waxtu bu muy nodd day fekk fajar jotagut waaye saa bu ngeen déggee noddug abdullah ibnu ummi maktuum rek na ngeen bàyyi lekk gi bàyyi naan gi te xam ni koor gi tàmbali na ndaxte moom ndegam silmaxa la fokk bala moo jóg nodd dañ naan ko yee eh, këpp këppal ko waxtu wi jot na mu doog a jóg moo tax kon bu ngeen déggee mu nodd ngeen xam ni waxtu wi jot na moom abdullah ibnu ubay ibnu abdullah ibnu maktum moomu nag nekk na koo xam ne nii ku gëm yàlla la ku ragal yàlla la ba tax na bari na sax yonent bi bu daan tukki nekk ci xare wala yeneeni tukki batale ko dëkk bi mu yàtte ci ginnaawam di jiite julli ba mu dellu si waat moom yonent bi moom nag waxtu wi nga xam ne ñi ngi nekk ci màkka dafa am benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog ak kàngami kuraishi, e tebokon te bokkoon na ca Abu Jahl ibnu Hisham Utbata Rabiata Walid ibnu Utbata Uqbata ibnu Abi Mu'ayt ak Walid ibnu Mughirata yonent bi tok ak ñoom di waxtaan ak nyom di leen waar ci diine ji ndax mi ngi doon ngéeju ñooñu nga xam ne kilifa ak gi ndaxte buñ gëmoon rek dina bari ñu leen topp ci gëm ga te kon lislaam dina am doole moo taxoon mu sonn ci ñoom ngir ñu gëm na mu toogee nag di wax ak ñoom silmaxa si daa di ñëw ci yonent bi bim ñëwee toog mu toog ne ko eh yow ki yàlla yónni xamal ma ci li nga xam ne yàlla xamal na la ko mooy nang ma jàngal sama diine waaye yonent mel ni da koo xaw a dëddu ndaxte mi ngi yitteewoo wax ak kàngami Quraysh yi bi loolu amee nag moom jamono ju nekk rek as diir rek mu naan mu wokkaat ko yow yonent bi xamal ma ci la yàlla xamal waaye yonent bi dëddu ko alxuraan wàcc nag di ko yedd mu naan ko abasa ñëkkal na kanam wata walla mu dëddu moom yonent bi an jaaw ba dikkalee ko ala ma silmaxa si wa maa yudrika lan moo la xamal laallahu ndax silmaxa soosu yazakka mooy aji sell ji aw yadakkaru wala dina waaru fa tanfaahu di ko jariñ ak dikraak waar yaa ngi koy dëdd waaye lan moo la leer ni kooku de moom mooy ki sell ki nga xam ne boo ko waaree mu waaru te li koy waxit dina ko dégg amal na ko njariñ waaye am maaman ndaal ñi nga xam ne naa dañoo doylu wëlis li ngay woote fanta te yow te saddaa nga koy gaarlu la wu ñeel ko wa maa alayka warut la nag an laa yazakka ba ñu bañ a sell mooy ñu bon ñooñu nga xam ne ñoo yéeféer yi yow yaa ngi leen di gaaral diine ji te nag warut la kat ñoom ñëpp ñu seenu ngëm kon tee ngaa bàyyi ñii te wëlbatiku ci silmaxa soosu nga xam ne moom diineem la lay laaj loolu moo ëpp solo waa maa man daal ñi nga xam ne jaa aka dikkal na la ndaal ki nga xam ne silmaxa soosu dikkal na la yasaa muy dox dox bu gaaw wow wate moom yaxsha mi ngi ragal yàlla fa anta te yow te lahaa yaa ngi soxlaalu leneen anhu walis ko yàlla mu ne kallaa déedéet innaha naka lii tadkiratun ak waar la mooy na nga bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal yi te gëmuñu yàlla nga wëlbati ko ci faqiir yi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla bëgg si xam seen diine moo daa mu ne kallaa innaha tadkira fa man shaa ku mu soob zakarahu mu waaru ca fii suxufin nekk na ci téere mukarramatin yu ñu teral marfuatin yu ñu yëkkati mutaharatin yu ñu laabal bi ay di safaratin mi ngi jaar ci loxo ay ambassadeur muy malaaka yooyu nga xam ne ñoo daan indi wax yu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne malaaka yooyu de kiraamin way tedd lañ bararatin way baax lañ qutila rayeef na linsaanu nit maa lëf lu màgg ak farawo weddiloo na ko mu ne yàlla nit dee moom moo mën a weddi boromam ak xéewalam yi ko yàlla jox yépp moom mu koy mën a weddi min ay shayin xanaa dafa fàtte ci lan lëf xalaqahu lañ ko bind moom nit mu ne min nutfatin ci toqentu ma niyu laa ko bind man yàlla moo tax mu ne xalaqahu laa ko bind fa qaddarahu ma xereñ ak bindam su summa topp la yoonu génn wa ci yaayam yasarahu yàlla moo ko ko yombalal ba nga xam ne bi wasin wa jotee yàlla defal ko ko mu génn te loruwu ca moom nday ja moom doom jiit it loruwu ca ndaxte nit ni ko yàlla bindee boo xoolee jigéen ni mel lu yéeme la ndaxte ëmb bi yépp bi muy ëmb mi ngi gone gi ci biiram waaye bu demee ba nga xam ne waxtu génn jot na rek yàlla day def sarit yi dañuy dañuy bàyyeeku muy gën a yaatu loolu moo tax doom ji xaj ca ngir génn waaye bu du woon loolu day dee rek waaye du génn ne ni mu toll moom bopp gone nga xaju ca moo tax yàlla ne summa sabila yassarahu man yàlla mam maa ko yombalal yoonu génn ga mu génn nag nekk ci kaw suuf di dund dem ba màgg dem ba dëgër dem ba cetang cetangi dem ba nga xam ne du gi yàgg na ci moom lool ma toog ba benn bis rek su ma maatawu ma rey ko fa aqbarawu ñu suul ko ginnaaw giñ ko suulee nag man lay soob man yàlla ma toog ba benn bis rek su ma ida sha soob na ko ansharahu mu dekkalaat ko kallaa dëgg nit kii daal moom lamma yaqdi jeexalut maa li nga xam ne amarahu digal na ko ko de moom yàlla li nga xam ne moom la ko sant nag na ca taxaw moom de defut lépp de am na sax amaan na defu ca dara far mu ne kon fal yanzur na xool al insaanu nit mi ila taamihi mu jëm ci li muy lekk ñamam wi na ci xool bu ci xooloon rek mën na cee waaroo mu ne nan lañam ñam mel yàlla mu ne innaa ñun sabab naa ñoo sotti almaa ndox mi sobban ak sotti mu jóge asamaan taw suuf si tooy xepp summa topp shaqaq naa ñu xotti al ard suuf si shaqan ak xotti ba gàncax gi nga xam ne yow yaa ko jiwoon mu sax faan bat naa ñu saxal fi yaa ci moom xabban pepp lépp li nga xam ne moom ngay dundee man yàlla maa ko saxal mu sax dem ba ñor te maa ko ñoral ba mu ñoree nga góob ko yóbbu sa kër ci loolu ngay dund mu ne waxi na ban waaye du lool rek am na ci agraisin ginnaaw boo ko toggee lekk ko ba pare bëgg ngaa deseeru mooy waxi na ban nga jël ay raisin lekk ko waqat ban ak ñàdd mooy ay légume ma nga ca bokk na ci li nga xam ne man man yàlla maa ko defar wa zaytunan am na ca it olive wa naxlan ak tàndarma wa ma defar ci ay tool xulban yu di way sëq wa faakeetan ak i ay foyteef mooy ay fruit wa abban ak parluwaay mu ne fàttewu ma sax ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi ma dox ñoom it fàttewu ma leen yéen nit ak jinne yéen a ngi lekk ci li nga xam ne man yàlla maa ko saxal waaye bàyyi ma li ñuy lekk man yàlla maa ko saxal muy ñax mi moo tax mu ne wa abban ak parluwaay loolu lépp nag mu ne mataan mu nekk xéewal lakum bu ñeel leen wali anaamikum ak seen juru kër gi kon képp koo xam ne nii jàpp na ci loolu di ci xalaat rek moom mën na cee waaru ba xam ne kii nga xam ne moo def lii te te mënoon na ko bañ a def te bu ko defutoon dara du ko ci fekk kii def lii de kooku moom moo yeyoo ñu jaamu ko waaye bu dee jaamuwuloo ko bisa ngi ñëw boo xam ne nii di ko rëccu de moo tax mu ne fa idaa jaat ndem dikk na asaaxatu aji tëxloo ji mooy bis pénce wal nañ bufti bi ñaareelu yoon bis pénc daa di ñëw yàlla mu ne bis boobu yow ma yafirru mooy bis bi nga xam ne dina daw almaru nit min axi ci mbokkam nga gis sa frère boo bokkook ndey ak baay nga koy daw wow mihi nga gis sa yaay jila la jur sonnoon ci yow lool ba nga xam ni amut lenn loo daan bëgg boo demee ci moom mu boole li mu am lu mu amut lu mu mën ak lu mu mënut ngir yow loolu nga am ko nga gis ko di ko daw waa bii nga gis sa baay ji la jur nga koy daw moomit it jamono ju ne li amul lenn lu mu bëggoon ci yow lu dul rek nga màgg dara bañ laa metti sa cër yépp mat sabo boo feebaree ñu yóbbu faji saa boo amul dara ñu jéem koo indi bis bu nekk mu lay dundal ciw ñaqam ba nga toll ni nga toll bis nga gis ko di ko daw wa saaxibatihi nga gis sa jabar ji nga daan bokkal ben tëdd ab lal bis bu nekk nga nga koy daw wa ba nii nga gis say doom di leen daw mu ne lu ko waral mu ne na bépp nit minhum ci ñooña shaw'un sha'nun mbir moo xam ne nii yuxniihi ko loolu jar naa xalaat te loolu bu ko waxee mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo la gën a jege ndaxte nit ñi la gën a jege xam sa lépp mooy ndey ak bàyyi ak jabar ak doom te nee na ñooñu li ngi jege jege li ngi leen bëgg bëgg bis penc boo leen gisee danga leen di daw loolu nag mu tolloog li nga xam ne moom lañ doon jàng ci ginnaaw muy ñaari mbir yu bokkut te boo xoolee dinga fekk ne ni yàlla tudd fii ñoom la tudd fee waxoon nañ ci suuratul maarij ne yàlla mi ngi doon wax naan yawaddul mujrimu law yaftadi min adaabi yawma idin bi banii wa saaxibatihi wa axii وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه nga gis ni fee bi muy tudd doom la njëkkee teg ci jabar teg ci frère fii nag bi muy tudd frère gi nga xam ne moom lañu mujjeewoon fii moom lañ njëkkee teg ci ndey ak bàyyi doog a indi jabar mujjee doom loolu boo ko déggut danga naan amaan na kon alxuraan daa wuute wala wuute mi ngi ci te yàlla waxoon na ni alxuraan bi amul tra lu ci lu ci wuute lu ci nekk iwajan amu ci amutit contradiction bu ci amum alxuraan kon lu tax ñi mu njëkke fee fii mu mujjee leen ñi mu mujjee fii fee mu njëkke leen ñaari mbir layu yu bokkut benn bi mooy ban nit ki nga xam ne dafa nekk ci ay tolof tolof ba nga xam ne bëgg naa jot boppam mooy nga bëgg intervention bu ñu def ci yow ngir ci tolof tolof yi nga ne nga génn ca boo demoon ci benn bërëb te la la fa yóbbu mooy ay bàkkaar yoo def ñu ne la kat fii mën nga fee génn waaye bala nga fee génn dangay jot sa bopp ni ngay jotee sa bopp day nekk loo xam ne nii yow ci yow lu cher la ci yow ne loo soxla wut kenn du ko soxla kon li gën a cher ci yow moom ngay génnee ngir jotu moo tax yàlla waxoon ne bis penc mooy bis bi nga xam ne def defkati bàkkaar bi dina ñëw indi doomam ngir jotoo ko kon sa doom moo gën a cher ci lépp loo am ci kaw suuf moo tax dinga gis waajur mën a bàyyi bakkanam moom moom mu dee ngir doomam dund moom rekk nag moom la koy defal du ko nangul kenn ku mooy doomam moom mu dee waaye doom ja dund ba tax na di nga gis sax bu fekkee ni doom ji dafa nekk ci ay danger moom waajur wi da koy njëkkante ak danger boobu même bu fekkee ni bakkanam da cee nar a des dina ko def ndax doom ji dund waaye bu dul keneen moom du ko ko nangul moo tax kon doom moom moo gën cher ci nit ki moo tax moom lay njëkk indi na yow yàlla lakkal sama doom te bàyyi ma bu ko ne yàlla ne ko loolu doyut mu ne kon jëlal sama jabar boole ca lakk te ba ma mu ne ko yàlla ne ko doyut mu ne jëlal sama frère nga boole ci mu ne doyut mu ne jël sama giir gi yépp ñi bokk ak man sant yépp nga lakk leen te bàyyi ma yàlla ne ko ba léegi doyut mu ne jëlal ñi nekk ci kaw suuf yépp nga lakk leen te bàyyi ma yàlla ne ko léedéet loolu moom du fi am safara kay nga jëm kon kooku mooy ki bëgg a jotu te noonu yii ñoo gën a seer ci moom fii nag du day jotu de waaye li tax muy daw te ñii muy daw lan la nit ki ki nga xam ne moom moo xam ci yow lépp moom mooy sa frère bi nga xam ne moom nga tollool jamono yéen a maase yéen a fawandoo ba lu ne ànd ngeen ko def am na loo xam ne nii xamal na la ko te sa yaay ji la jur xamu ko ci yow ba tax na kon kooku li mu xam ci yow kenn xamu ko ci yow bis penc nag nekk bis boo xam ne nii lépp loo xam ne nii waa ji defoon na ko mu nekk ab safaan bëggul ko ko koy fàttali ci bis booba kon kay sa frère bi nga xam ne moo la xamal lépp boo koy gis rek da ngay wëqati daw parce que bëggoo la ngeen def mu nettali ko fi ndax bëggoo ko fi moo kon frère la yàlla jiital file ginnaaw ga mu teg ci yaay ndaxte sa yaay mooy ki nga xam ne ginnaaw sa frère li mu xam ci yow sa baay sax xamu ko bari na loo xam ne sa diggante yaag sa yaay rekk la ba tax na moom dina xam ci yow ji du xam ba bari na day loo xam ne nii baay ji bu ko bëggee xam ci yow yaay ji la koy laaj ne ko waaw diw moom nangam ak nangam mu ne ko ah, moom de nangam ak moo tax moom it ginnaaw sa frère sa yaay boo koy gis li nga xam ni yaa ko defoon doo ko nëbb mu nëbbaloon la ko moom it bu leen gisee da ngeen daw parce que ki amul kenn ci yéen ñaar ku bëgg wax jooja ñu fàttali ko fii ginnaaw ga ngay daw sa baay ndaxte moom moo ci togg ci xam lu nëbb woon ci yow yi ginnaaw ga sa doom moo ci mujj ndaxte moom lim xam ci yow bariwul daanaka bi muy juddu moom fekk na nga toll ni nga toll amaan na kay góor gu sàggan rek moom la doom doomam di xam ay safaan ci moom ndaxte bu ko yàlla xéewalee amaan na mu dëkku wëlbatiku di jaamu yàlla balaa doom ja di màgg di xàmmee fekk moom mi ngi cib safaan moo tax doom la mujjee mu ne kon li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnii mu ne bis penc wujuhun am na ay xaram ay xar kanam yawma idin keroog musfiratun aji leer lañu ndaxte dañ doon jaamu yàlla ba yàlla nar leen a fayee àjjana mu ne ñooñu boo leen gisee daaxikatun aji leer lañ ay ree lañ mustabsiratun aji bég lañu wa wujuhun waaye am na yeneeni xar yoo xam ne ni keroog bis penc xabaratun ay pënd ala mooy nekk ca xaw ca xaw ca kaw xar kanam ya tarhaquhaa dina ko yéeg di ko muur xataratun ay saxaar wulaayika ñooñu hum ñoom alkafaratu ñoom ñooy yéeféer ya alfajaratu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon defkati bàkkaar ya suuratu takwir Makka la wàcce ñaar fukki aay ñoo ci nekk juróom ñeent yonent bi alayhi wasalaam waxoon na ni ci loo xam ne ni ibnu umar radiallahu moo ko nettali mu nekk ci sunanu tirmidi mu ne képp koo xam ne ni bëgg naa xool bis pénc mel ni mi ngi jàkkaarloog moom na jàng ñetti saar yi mooy ida shamsu kuwirat ak ida samaun fatarat ak ida samaun shaqat mu ne boo ko jàngee boo ko déggee dina mel ni yaa ngi jàkkaarloog bis penc ba amaan na yow kenn mënatu la cee nax yàlla ne bismillahi rrahmani rrahim ida kuwirat ndéem ñoreef naa samsu jant bi ñu jël jant bi ñore ko génnee ko fi jëlee ko fi wa idan kadarat ndéem fëq naan nu juumu biddéew yi biddéew yépp benn bu nekk fa mu nekkoon yàlla jëlee ko fa wa ida suyira ndem doxaleef na aljibaalu doji yàlla na neen yéen doj yi jóge leen fi ñoom ñëpp ñu jóge fi nekk haba an munbathan yàlla mu ne wa ida utilat ndem yuqaleef na al ishaaru giléem ya mooy giléem yi dem toog ba amatul kenn ku leen ni ku leen ni ratt wa ida xusirat ndem booleef na al wuxuusu ndagmant yépp rabu àll yépp yàlla boole leen jëlee leen fi wa ida jirat ndéem taaleef daal bi xaaru géej yàlla jël géej yépp taal leen ñu tàkk ba jeex wa ida zuwijat ndéem lënkaleef naan nufuusu bakkan ya ñu jël bakkan bu nekk ñu boole koog yaram wa ak seytaane bi nga xam ne moo lënkoon moom wala ñu jël yaram wu nekk boole ko ak ruuxoom ba ginnaaw bi nga xamee teqli ko woon nañ ca deega wa ida suylat ndéem laa jeef naal maw uudatu aji dal la ji ki nga xam ne dafa nekkoon gone juddu rek ñu jël ko sànni mu dee ki nga xam ne dafa nekkoon gone juddu ñu jël ko suul kooku sax yàlla da koy woo di ko laaj naan ko bi ay danbin ci ban bàkkaar xutilat nga def bañ rey la kon ko yaakaar ni duñ la laaj ndax nga sa bopp ki nga xam ne dafa judd rek ndeyam walla baayam wala ndey ak baay jépp ñu bañ ak xas tax nañu jël gone ga sànni ko ca poubelle ba wala ñu jël gone ga ray ko fekk muy dund yàlla mu ne gone googu dama koy indi bis penc laaj ko ban bàkkaar la def bañ reyoon ko wa ida nushirat ndéem tasaare naa suxfu téere ya kenn ku nekk ñu jox ko téere jëfam am ñu jëlee seen téere ci ndeyjoor am ñu ko jëlee ci càmmoñ am ñu ko jëlee ci seen ginnaaw yi ginnaaw ndaxte jamono jooju fekk na ñu ñu ñooñ ko jël loxo ya takk ci loos kon kooku téere ca ci ginnaaw rek lañ ko koy joxe ñëpp nag kenn ku nekk ñu jox la say téere jëf wa ida kusita ndéem ñoreef na asamaa wa asamaan si yàlla mu ne asamaan ni ko gisee nii ma dindi ko fi amatul wa ida suirat buñ demee ba taal aljaximu safara ñu taal ko xamb ko ba mu bax ba muy ba muy tàkk wa ida uslifat buñ demee ba jegelee fee aljannatu ajjana moom i ajjana ñu indi ko mu mu bu lay xam alimat lay xam nafsun bépp bakkan maa lépp loo xam ne ni axdarat teewal na ko fa moo xam wala uqsimu duma ma giiñ sax bil xunna si ci beddeew boobu nga xam ne mooy aji suux ji aljawaari mooy aji daw ji alkunna si mooy aji nëbbu ji wallay li giiñ naa ci guddi ida asasa ndeem joxe na ginnaaw ba dëddu wa subxi giiñ naa ci suba ida tanafasa ndeem leer na yàlla mu ne innahu naka moom alquran nii la qawla rasulin waxib yonentu la karim daa ji tedd moom jibril moomu de di quwatin borom ak kàttan la makiinin nekk na ku ñu darajaal inda dil ci fa yàlla moom jibril moomu mutaain nekk na ku ñuy topp ay ay digalam sama foofale amiini nekk na ku ñu wóolu wa ma saaxibukum di nekk seen àndaale bii di yonent bi alayhi bi majnuunin di nekk ku ñu jinneel moom de nekkul ku dof koo xam ne nii dañ ne jinnee koy jàpp wala qad raaw gisoon na ko bil ufuqi ca gox ya almubiini bi aji bir wa maa huwa déet moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi daniinin mu nekk ku ñuy tuumaal alal xaybi ci lu wa maa huwa déet moom alquran mi bi qawli shaytaanin mu nekk di waxu shaytaani rajimin ku di ñu jam fa ayna tadhabuuna ana fan ngeen jëmati fan ngeen dem bàyyi fi alquran boo demee bàyyi fi alquran fan nga jëm ana lan ngay e uti yaakaar ni mën na laa waar ginnaaw bi nga fi alquran in huwa déen moom alquran mi illa dikrun lu mooy mu nekk ak waar lil aalamiina ñeen mindeef liman shaa ku min soob minkum ci an yastaqima mujub jub wa ma tashaawuna du ngeen sob nak illaa an yasha lu mooy dafa soog allahu yàlla rabbul aalamiina mi buuru mi ndéef suuratul infitaari moom it màkk fukki ay ñoo ci nekk ak juróom-ñeent yàlla mu ne idan fatarat ndéeb xotteeku na asamaan wa asamaan si wa idan rot na alkawaakibu biddéew yi wa fujjirat ndéem bala leef na albihaaru géeji yépp ñu jeex wa ida bu'thirat ndéem wëlbateef na alqubuuru bàmmeel yi lépp lu nekkoon ci biir génn nag yàlla mu ne su boobaa alimat lay xam nafsun bépp bakkan maa li nga xam ne xaddamat jiitaloon na ko ci jëf waa xarat wala mu yéexaloon ko ci jëf lépp loo xam ne nii mës nga koo jëf ci kaw suuf li nga njëkk a def ba li nga mujjee def ci kaw suuf lépp ñu indil la ko teggal ko sa kanam yàlla mu ne yaa ayyuhal insaanu e yow nit maa xarraka lan moo la wor bi rabbika ci sa borom alkarim yaa ji tedd alladi mooy buur bi nga xam ne xalaqaka bind na mu la fa sawaaka mu yamale la fa addalaka mu yamale la mooy mu bind la ci mbindin moo xam ne ni amut lenn lu ëpp de ni nga war a mel noonu la la yàlla bindee amut lenn loo xam ne nii manqué na wala mu ëpp fii ay suuratin ci bépp melokaan maa boo xam ne ni saa neex na ko moom yàlla rakkaba ko ci la la bind kon nanga nga jàppee ni ni nga mel loolu moo soob yàlla moo tax nga mel nii bu dee yàlla dalaa def nga nekk ku njool loolu moo soob yàlla yàlla def la nga gàtt looloo ko soob yàlla def la nga ñuul moo ko soob mu def la la nga rafet looloo ko soob mu def la sa bakkan bi mel nii sa nopp mel nii sa tànk yi ni ñu mel loolu lépp moo soob yàlla waaye nga ne yàlla dafa juum ni ma bindee waruma woon bindee nii sama bakkan bi ni mel neexuma sama nopp yi ni mel neexuma sama baaraam bi ni mel neexuma sama melukaanu yaram wi ni mel neexuma man dama waroon a xees waruma woon a ñuul ba tax na ma dem jëli ay meen mbir yoo xam ne nii moom laay def sama yaram wi ngir xees ba mel ni tubaab wala ma mel ni ñu xees ñi loolu mooy yàlla daa juum ni ma waroon a mel melu ma ko fekk yàlla nee na ni nga war a mel noonu naa la bindee fii ay suuratin ma shaa rakkabak melokaan bi nga xam ne moo soob yàlla ci noonu la bindee yàlla mu ne kallaa dëgg balli fi ne mooy tukadibuuna da ngeen di weddi bi diini ci bay suk ga wa inna alaykum nekk na fi yéen la xaafidina way wattu am na ñaari malaaka yoo xam ne ñoom ñoo leen di wattu ba fépp fu ngeen dem ñi ngi ànd ak yéen lépp lu ngeen wax fekkee na ko lépp lu ngeen def mu ngi ñu ko teewee te ñu ko bind ci téere yoo xam ne nii du far de du sànk du yàq du maxe tey du réer de moo tax yàlla mu ne way inna alaykum la xaafidina nekk na ci yéen way wattu mooy ñaari malaaka yooyu te mooy kiraaman ak kaatibiina malaaka yoo xam ne yu tedd lañ waaye ñi ngi bind lépp loo xam ne ni yéen a ngi koy def malaaka yooyu yàlla muun a xam nañ maa lépp li nga xam ne tafaaluuna di ngeen ko jëf inna al abraara naka way baax yi la fii naimin ñoom ñoo nekk ci xéewal wa inna al fujjaara naka def kati bàkkaar yi nag ñoom bis la fi jaximin ñoom ñoo ñoo sa safara ya yaslawnaha dañ koy jaaru jaru ma diini bisa ak pay ga wa maahum déet ñoom bi xaa'ibiina ñuy nekk di way fàddu ñu leen génnee anha ca safara sa wa ma ya lan lamoi bisa xamal maa ma mu diini la mooy bis ak pay ga summa topp maa adraaka lan moo xamal la bis ak pay ga mu ne bis bi nga yawma laa tamliku bis bi nga xam du moom nafsun benn bakkan li nafsin ñeel benen bakkan sayaan ci menn mbir boo xoolee ni ko yàlla waxee lu yéeme la de ndaxte daf ko yéeg ñoom ñaar ñépp da koo indi indil ko nakira moy amul alif ak laam loolu lan mune amul ben bakkan ba bakkan yépp jeex dimalal ben bakkan ba bakkan yepu jeex ñu ko fay mënal menn mbir ba mbir yépp jeex amul kenn ku fa mënal kenn lenn loolu ya yàlla la ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru mbir yow yawma idin keroog lillaahi ñeel na yàlla amul kenn koo xam ne di nga fa mën menn mbir yàlla rek moom moo fay mën de ne moom rek moom moo góor bu ne limanil mulkul yawm kenn du tontu ana kan moom moo fi buur tey yàlla mu ne lillahi alwaxidi alqahaar moom rek moom mooy buur te ku dul moom rek ab jaam ngay doon te kon doo fa mën dara yàlla mu ne suuratul mutaffifin saaru mas-masal mu ne waylun xurwa ca safara mbugal lil mutaffifina ñeen la way mas-masal ña ñan ñooy way mas-masal ya alladina mooy ñi nga xam ne ida taalu bu ñu nattalee ala naasi waral nit ñi yastawfuuna dañuy matal wa ida kaaluuhum bu ñuy nattal nit ñi nag aw wazanuuhum wala ñu leen si peeseel yuxsiruuna dañ ciy wàññi loolu moom ñi jënd ak jaay la yàlla di wax foofu mu ne mbugal bis penc ci ñeel na ñi nga xam ne bi ñuy jaay bu dee yow yaay peeseel client bi liñ koy jox danga nga cay wàññi dara wala bu dee da ngay jënd ci nit ki dangay xool li muy peese dana mat sëkk de mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo mel noonu nañ xam ni bis penc mi ngi ñëw te bu ñëwee dinañ leen fay seen jëf yooyu te safar lañ cay dugg moo tax mu ne wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun mu ne alaa yazunnu ndax dafa wóoluwut ne ulaayika ñii ni annahum naka ñoom mu baax ma baax suuna ñu ñuy dekkal lañ ndax ñii dañoo dañoo amul kóolute ne bis pénc dinañ leen dekkal te su boobaa li nga xam ne ñi ngi ko doon jaaye te baaxutoon yàlla dina leen ko fay li yow min ñeel bis boo xam ne ni azimin aji màgg la mu mu ne yow ma yaquumu mooy bis bi nga xam ne dina taxaw annaasu nit ñi li rabbil alamin ñeel buuru mi ndeef yi kallaa dëgg inna kitaabal fujjaari naka téere def kati bàkkaar yi la fii si jiin mi ci si jéen wa ma adraka lan moo la xamal maa si jiin la mooy si jiin nga ne ko man de si jiin xamuma ko mooy lan mu ne la kitaabun téere la marqumun bu ñu kaste boo xam ne nii dara dootuñ ko ca yokk dara it dootuñ ko ca wàññi waylun mu ngi mel ni rek lettre bi nga xam ne dañ koo binde ba signé ko jël tampon bi teg ca loolu mooy marqum amut lenn loo xam ne dañ ko ci yokkaat wala ñu ko ciy dabaatal wala ñu ko cay wàññi de mu ne waylun mbugal yawma idin keroog lil mukaddibiina ñeel na way weddi alladina ñi nga xam ne yukaddibuuna dañuy weddi bi yawmi diini ci bisug bay ga wa maa yukaddibu te du weddi bihi ci moom illa kullu mu'tadin lu mooy képp koo xam ne ne aji jéggi dayoo la asimin muy defkati bàkkaar ida tutla ndéem def na jàng alayhi ci moom ayatuna suñu alquran qaala mi ngi naan asatirul awwalina lii defe ni maam yu njëkk ya rek la yàlla mu ne kallaa dëgg ba li fi nekk mooy raana dafa gàkk ala qulubim seen xol maa li nga xam ne kaanu nekkoon nañ yagg si di fàggu ko baatub reynu yonent bi alayhi salaatu wassalaam firi ko te loolu abu hurayrata radiyallahu anhu moo ko nettali imaam tirmidi génnee ko ak ibnu maaja mu ne yonent bi nee na jaam bi bu fekkee ni dafa def benn ñaawteef walla njuumte wala benn bàkkaar yàlla day digle ñu jël benn tomb bu ñuul tomb ko ci xol bi ngir bàkkaar boobu mu def bu dee tuub na ko nag jéggalu ko ñu far ko bu ko jéggaluwut ñu bàyyi ko noona ca xol ba mu nekk ab ñuul ñuul bu ca nekk bu defaatee beneen bàkkaar ñu defaat ca beneen tomb bu ñuul bu defaatee beneen bàkkaar ñu defaat ca beneen noonu la waa ji di nekkee ba xol ba fees dell ak ay tomb yu ñuul nga gis ko xol baa nga ñuul kukku mu ne loolu la yàlla di wax naan bal raana bi qulubihim ma kaanu yaksibuun mooy gàkk-gàkk yi nga xam ne moo nekk ci xol bi ba mujj xol ba ñuul yàlla mu ne kallaa dëgg innahum ñoom yow may din keroog la mahjubuuna ñu ñu yiir lañ ba duñu gis an rabbihim seen boroom yàlla mu ne ñoom bis penc ñooñu kat duñu gis seen boroom te bis penc képp ki gisul boromam mooy ma safara moo tax mu ne summa topp innahum ñoom la saalul way jaaru lañ safara te jaaru boo xam ne nii boromam liwut du tudd jaaru waaye ay lakk lay tudd summa topp yuqaalu deef na wax naa ko haada mbugal mii de alladi mooy li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna di weddi bi ci moom kallaa dëgg inna kitaabal abraari naka téerey ña nga xam ne ñooy wax ba way baax ya ñoom la fii illiyiina mi nga ca illiyiin nga ne illiyiin de xaw ko wa maa adraaka lan moo la xamal maa illiyuuna lan mooy illiyuun mu ne mooy kitaabun téere la moom it marquumun bu ñu kaste ñu baax ñi li nga xam ne ñu koy def ci seen téere ya loolu mooy illiyuuna ñu kaste ko mu ne yashhaduhu dina seede ko almuqarrabuuna malaaka ya nga xam ne ñoom lañ jegel seen borom inna labraara naka way baaxi ñoom bis pénc la fi naimin ñoom ñoo nekk ci xewlu àjjana ya alal araayiki ñoom ñoo nekk ca kawlal ya yanzuruuna ña ngay xool mu ne taarifu yow sax boo xoolee kooku nekk biir àjjana di nga xàmmee fii wujuhim seen xar kanam ya nadrata naimi xéewal gi nga xam ne moo nëtëx mu ne boo gisee ñoom ci xewal ya ñu ne xéewal nga danga koy gis ci seen xar kanam ya mu ne na def na nandal leen min raxiqin ci sàggara joo xam ne ni maxtuumin bu ñu kaste la kaste bii nag bokkut ak yañ doon wax léegi kitaabun marquum waaye kaste bi mooy lan mu ne nekk na sàngara soo xam ne nii bu ñu defar la bu xereñ ak defaram waaye bu ñu yàggal la te nañ ko kaste woon ba léegi kaste ba amul kenn ku ca ku mu sa laal loolu boo demee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay sàngara ak ñi nga xam ne dañoo bëgg sàngara sa yi nga xam ne ñoo gën a cher ñoom ñoo koy mën a dégg da fekk ne di nga gis sàngara soo xam ne nii dañ naan la sàngaay bii dañ koo nëbal ay ati ati at daanaka boo ko gisee bu ñu la waxee at yi mu am sax da lay yéem waaye mu yooyu mooy sàngara yi gën a cher ci sàngara yi ka nga xam ne nag moo koy jënd nekkul sàngara suñuy naan bis bu ne waaye ay occasion rek moo tax ñu koy jënd te buñ ko jëndee occasion yooyu rek mooy tax ñu koy naan moo xam amaan na ngénte lay doon ca ñoom wala mu nekk bis boo xam ne nii waaja lam doon ut ci bérébu liggéeykaayam bi amaan na am ko mu koy feetee wala mu nekk loo xam ne sa doom amaan na moo ba toll fenn fi am lenn li nga koy def ab feet jël butel booba nag do koo dajji ñooña buñ dajjee butel ba da ngay gis la nga xam ne lañ ko kastee woon la di wax fii moom lañuy jël di ko fóon di ko xeeñtu ngir xam xetu sàngara gi nga xam ne moo nekkoon ca butéel ba xet googu nag xet gi moom mooy des ci bouchon bi nga xam ne moom moo tëjoon sàngara si loolu ñi nga xam ne ñoo yëngu ci loola ñoo koy xam moo tax yàlla ne sàngara si nga xam ne moom la ñuy naan ci bis nekk na sàngara soo xam ne bu ñu kaste la bant ba nga xam ne it moom lañuy ñuy deferee lañ koy kaste moom butéel ba du bantu garab gu ne dafa am rek ay garab yoo xam ne nii yooyu la ñuy jël moom lañ koy saañee moom la yàlla di wax naan na min raxiqin maxtuumin mu ne xitaamuhu mu ne moom kasteem ga mu ne miskun moom lay xeeñ mooy gëttëg misk la dafa neex ba nga xam ne day xeeñ lu neex waaye wuuteeg nag sàngara sii nga xam ne ñii mooy yàlla ñoo koy naan ñoom seen sàngara ya lañ cay xeeñtu buñ ko xeeñoo du nekk misk de moo tax mu ne nga jaamu yàlla nag ba yàlla dugal la àjjana nga dem naan ci sàngara soosa mu nga xam ne moom dañ koo kaste ci kaste goo xam ne nii misk lay xeeñ mu ne loolu moo jar nit ki di xëccoo wa fii daalika ci lii fa fal yatanaafas na xëccoo almutanaafisuuna way xëccoo ya képp kuy xëccoo lii moom moo jara xëccoo mu ne wa misaajuhu njaram ma waxoon nañ ko démb ñun li ñu xam ci njar rek mooy nga jël soow mi yokk ci tuuti ndox def ci suukar ñun loolu lañ xam wala ñépp ci ñun loolu lañ xam walla nga jël sàng way nga jël lem gi yokk ci tuuti ndox defaat ci beneen mbir amaan na mu neex ci yow ñun loolu lañu ñu xam ci njar waaye njarum sàngara nag moom du loolu waxoon nañ démb mooy mooy li ñu tubaab yi di tuddee mooy nga jël sàngara sii boole koog sii wala nga jël nangam ji boole koog nangam gi mu jox la sàngara sàngam boo demee fii nga xam ne foofu lañuy ñuy jaayee sàngara yi cocktail yaa ngi fa bari ba jéggi dayoo boo ñëwee ne ko cocktail sàngam laa bëgg rekk moom mi nga xam ne ci lay liggéeye xam na cocktail boobu nuñ koy defaree su boobaa mu jël nangam gi boole koog nangam gi rek jaxase ba daal di koy yëngal lépp nekk mel ni mbir mu sotti la ko ci kaas bi tegal la bari na nag ñun léegi ci suñu télé yi ñuy seetaan yoo xam ni mooy yàq suñu ndaw yi nga gis gone goo xam ne nii day dem ba ci benn béréb ñu tuddee ko plage wala leneen daanaka dara du ko wër wala lu koy wër lu néew lay doon ci yére mu nekkee noonu nag di dox nag di dem ak dikk am foo xam ne nii fa lay tëdd bu bëggee tëdd bu saa bëggee dugg dugg ci ndox mi sangu bu demee nag ba génn nag am benn waay ju mu woo ne na koy nil benn ci cocktail ya yooyu nag nga gis ñi ngi ko teg ci ay weer yu rafet jël ay biir teg ca amaan na ay mango lay doon ak wala ay yeneeni mbir la ñu wekku ko ca nga ni ka kii de mi ngi noos nga tuddee ko noona ñun nag yooyu ñun ñuy nangu ñu koy génnee ci suñu télé yi di ko jàngal suñu gone yi waroon nañ koo seetaat bu baax ndaxte yooyu yëpp day yóbbu ki nga xam ne moo koy seet moo koy seetaan moo am ay mébét moom it dund dund gu mel noona loolu dina ko yóbbu ci muy defit loo xam ne waru ko war a def ngir am loo xam ne ni moo koy may mu dund dund googa moo tax bari na ci ñun ñoo xam ne nii lañuy ñuy yëg di ca yëngu dara dagunu ca dara baaxut waaye ji ñun dinañ ci am alal te alal jooja lenn taxut ak lu dut jëmmi jamono ñu ne ñu ngi dem vacances béréb sàngam nga dégg ñu naan la man kat Maldives laa demoon vacances wala demoon naa béréb sàngam wala demoon naa fee te yooyu yëpp nag lii dong moo ko waral wala boo toogee ba jëmmi jamono suñu réew yu mel nii sax bu weeru koor ñëwee ñi nga xam ne ñoom ñooy wuyoo ni ay doomi jullit lañ ñoom ñooy fees dell géej yi ñu ne dañuy dàq koor kooku moom mënoon naa bañ a woor boo wooree ba pare dem géej moom mooy yow sa koor ga wooruloo te nga naan ndox te nekk ci yeneen yeneeni mbir loolu moom daganut ab jullit li ko war ci weeru koor mooy muy jàng alquran di ko settantal xam lan la ko yàlla digal ci alxuraan mu def ca lam ca mën lan la ko yàlla tere ci alxuraan mu bàyyi léppam lépp lu mu dégg ñu ne lii de yonent bi daana ko def ci bisu wooru koor mu koy def ca guddi ya muy def li yonent bi daan def waaye bu rombee loolu leneen loo mën a defit tuddee ko dàq koor mooy dàq nga ko dem na dootu dikkati kon nañu xool li ñuy jàngal suñu doom yi te bari na lu ñuy jàngal suñu doom yi tey loo xam ni ñi ngi koy def te ñun yëguñu ko ndaxte xale moom njàng mi gën a gaaw mooy li mu gis ndey ak baay def ko pour moom loolu moom diine la ba tax na bari na bu ñu toogee ne gone gii daa mën a nettali nettaliwut daa gis ndey ak baay du ko def wala ñu ne gone gi day fenn wala day nàngam day nàngam dara lépp da koo gis ne bi muy ñëw loolu xamu ko woon moo tax olof di lépp naan naar bu ndaw bi lu wax rek ca biir tànt wala ko déggee dëgg la mooy loolu kon nañ xool suñu gone yi ak suñu njaboot yi lañ leen di jàngal ndaxte bisa ngi ñëw bari na ci ñoo xam ne nii amaan na sax am nañ ay jaamu yàlla yu bari yu ñu def waaye buñ demee bañ di dem leen àjjana doom ja taxaw ne e yàlla bu mu demagum kat ndaxte moom mii mii sama baay di sama yaay di samay waajur nekkoon samay kilifa jàngal luñ ma woon diine teguñ ma woon ci yoon wu jubi waxuñ ma woon won yoon moo juboon yàlla ne kon waqifuhum innahum masulun buñ gaawtu ñoom it nañ taxaw kon ñu ñëw ñu laaj leen seen njaboot gi nan ngeen nekkee woon ak ñoom ndax tegoon leen leen ci yoon wu jub wala déet bu dee waxoon ngeen daa ngeen digle daa ngeen tere waaye dañ leen a toppul woon ndax seenu dëgër bopp su boobaa yéen ngeen di wàcce waaye bu dee loolu amutoon kon it xam ngeen ni ñoom nañ leen naroon dugalee safara yow mi naroon a dem àjjana lañuy jëlee àjjana ju dugal safara moom la yonent bi wax naan kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi yéen ñëpp amul kenn ci yéen lu dut ab sàmm la te bis dina ñëw dinañ ko laaj liñ ko doon sàmmloo nan la ko sàmmee ndax da ko sàmmoon sàmm bu baax wala da koo sànkoon bu ko sànkoon kon moom it moom mooy ànd rek ak kooku dugg safara moo tax kon nit ñi nañ jaamu ji yàlla loolu rek mooy li nga xam ni mën na laa muccal bis penc bu dut loolu boo ko defut lépp loo mën a yaakaar képp koo mën a yaakaar bu demee moom ci boppam sax mënalul boppam dara bis pénc te du la talit moo tax mu ne wa fi dalika falyatanafas almutanafisuun wa mu ne wa misaajuhu njaram mi mooy moom cocktail ba ci sàngara soo suñuy naan mu ne min tasnimin ci tasnim lañ ko defee nga ne tasnim moom lan la mu ne aynan sewnde la yashrabu dina naan biyaa ci moom almuqarrabuuna ñu ñu jegeel ñi seen borom inna alladina naka ñi nga xam ne nag ñoom ajramu ñoom ñoo def bàkkaar kaanu nekk nañ min alladina ci nga xam ne amanu ñoo gëm na ñu leen di reetaan mu ne ñi nga xam ne ñooy defkati bàkkaar yi ñoom bi ñuy nekk bu ñu gisaan jullit yi weeru koor ñuy woor dañ leen daan reenaan tey ñi ñoo sonn yow lekk ak naan ni mu neexee yow nga bàyyi ko fi naan da ngay woor buñ demee ba guddi ñuy naafila di julli naan tey yàlla xool ko rek sonn nañ de ak nelaw ni mu neexee nga bàyyi ko fi naan da julli mooy reetaan gi nga xam ne moom la yéeféer yi nekkee ci àdduna di ko ree jullit ñi naan ñii daal ñoom ñoo sonn ak xéewal yi fi nekk yépp ñoom lenn defuñ ko lu dul rek nañ naan dañuy jaamu yàlla moo tax mu ne wa ida marru ndéem romb nañ bihim ca jullit ña yetaxaamasuuna ña ngi leen i yéej ji wa idan xalabu walbatiku nañ ila ahlim jëm ci seen njaboot ya in xalabu ña ngay walbatiku faakihiina ñu way ñuy way yéemu di way bég ca la xam ne moom la ñuy wax jullit ña bu ñibbee ci seen kër ya nag di koy nettali seen njaboot yi naan dal manggis wajo ngi gis waajoo xam ne nii maa gis ma ngay julli mel nangam mel nangam maa ngi gis ma nga woor sonn lool koor gaa ko ko ne loolu moom la rek bu ñu demee kër ya di ko nettali seen ya wa boo leen gisee xaalu dañ naan inna haulaay naka ñii la daalluuna dañoo réer ñi naan ñii naan ay jullit lañ ñoom kay dañoo réer ñii dañoo tardé xamuñ ne jamono ji romb na fii ñu naan ay woora ak woor jamono ji romb na fii yàlla mu ne wa maa ursilu leen alayhim ci ñoom xaafidina ngeen di nekk ñu ñu ñu ñuy wattu mu ne yàlla yónniwu leen rek ngeen leen di wattu ba force leen forcé pour ñëpp gëm mu ne fal ma tey alladina mooy bis nga xam ne amanu ñoo gëm ñu nel ku faare ci yéeféer ya yadxakuuna ñoom ñooy reetaan mooy ñoom lañ doon def julli yi ci àdduna buñ demee bis ci loolu la leen julli yi di def ñoom ñoo leen doon reetaan tey nag ñoom jullit yi yàlla dugal na leen àjjana yéeféer yi yàlla dugal leen safara ñu leen daan reetaan ñoom it ñaan nakam yéen de yéen doon wax naan ba ñuy nekk àdduna dañoo tardé woon yéen yéen a doon wax naan dañuy bàyyi lekk bàyyi naan ngir yàlla ngeen ñu ciy reetaan yéen yéen a doon wax naan suñu julli yu bari yi amul fenn fu ñu jëmale waaye dañuy dellu ginnaaw yéen yéen doon wax naan lii du luy jëmal kanam am réew julli kese jamanul karam am réew wala nangam sangam yep yéen nañu ko doon wax looy gi ñi ngi alaaxira ñun ñi ngi àjjana yéen yéen a ngi safara yàlla mu ne ñoom lay leen fayee nag seen reetaan nga waaye nag bii nag moom moo gën ndaxte ñoom alal araayiki ña nga nekk ca kaw lali àjjana ya yanzuruuna ña ngay xool yéeféer ya ca la ñu nekk noonu lañ leen di ree mu ne hal tuwi ba ndax fayee fut alkufaaru yéeféer yi maa li nga xam ne kaanu nekkoon nañ yafaaluuna jëf ko de ah kay lu rek lañ leen fay suuratul inshiqaaqi màkka la wàccee ñaar fukki ay ci nekk ak juróom yàlla ne bismillahi irrahmani irrahim idan shaqat ndem xotteeku na assamaa wa samaan si wa adinat digaleef ko li rabbi yaa boromam wa xuqat te eyeef ci moom mu déglu santaane boromam loolu mooy lan asamaan yàlla danaan ko asamaan asamaan jóge fii asamaan daa di dégg ndigalal boromam daa di jóge dootul nekkati mu ne wa mu muddat ndem tàllaleef naa lardu suuf si ñu jël suuf si daa koy lem ni ñuy lemee basang jël ko wér ko fële suuf amatul mu ne wa alxat mu sànni nag maa li nga xam ne fii haa nekk na ci biiram moom suuf wata xalat te mu wéet loolu mooy lan mooy suuf yàlla da koy wax ne ko ee yow suuf lépp lu nekkoon ci sa biir ci ay nit yu dee woon génnee ko suuf daawee daa génne lépp loolu mooy waal xat maa fiha wa mu wéet nag dara nekkatul ci biiram ndaxte li nekkoon ci biiram yépp génnee na ko waasinat mu digal ko li rabbiha ñeel boromam wa xuqat teyeef na ci moom mu topp ndigalal boromam moom suuf yaa ayyuhal insaanu ee yow nit innaka naka yow kaadixun aji sonn nga kadaxan ak coono fa mulaaqiihi te xalse ngaa dajeeg moom ilaa rabbika jëm ci sa borom mooy bi ngay nekk ci kaw suuf am na loo xam ne ni moom nga daan def sonn ca lool moo xam baax na wala baaxut bis dina ñëw loolu di nga moom lu tax nag yàlla tuddee ko coono ndaxte jàngoon nañ ni yàlla nee na woon dama bind nit ci coono amut lenn looy def lu dul ci coono lay mujj ak yow li nga yaakaar ni sax mooy noflaay gi bu yàggee nekk coono xëy nga liggéey ñëw wàcc tëdd bi bu yàggee nga jëlee ci coono toog gi bu yàggee nga jëlee ci coono lekk gi bu yàggee nga sonn ci naan gi bu yàggee nga sonn ci amul lenn lu nit di def lu dul rekk bu yàggee mu jural ko ak coono loolu nag moo tax lépp loo def rek coono nga cay jële bu dee lu baax la woon yàlla dina la ko fay bu dee safaan la woon it yàlla dina la ko fay moo tax mu ne fa amma man ndaal ki nga xam ne uutiya joxeef na ko kitaabahu téeréem bi yaminihi ci wàllu nday jooram kooku fa sawfa yuxaasabu dees na ko xisaab xisaaban xisaab boo xam bu la bu ila ahlihi jëm ci ñoñam masruran muy aji bég moo tax aïcha anha mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul kenn koo xam ne dinañ ko xisaab rek lu dul dinañ koy dugal safara képp ku yàlla xisaab mu ne safara la jëmale mu ne ko eh yow yow yow ki yàlla yónni loolu moom naka la mën a nekkee te yàlla wax ci alquran ne fa amma man uutiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran kuñ kuñ jox téeréem ci ndeyjooram kooku dinañ ko xisaab xisaab bu yomb yow nga ne képp ku ñu xisaab safara la jëm mu ne waaw li nga ci déggut mooy xisaaban yasiran mooy dañ lay gaaral rek sa jëf yi waaye duñ la ko toppee dañuy ñëw rek ne la yow de defoon nga nangam ak nàngam nga nangu yàlla ne man mi la suturaaloon ba ngay nekk àdduna te kenn yëgu ko woon man maa la suturaal bis penc jógal dem jana mu ne loolu mooy xisaaban yasiran waaye képp koo xam ne ni indi nañ ko di ko ko tegal di ko ko benn bennal mooy ñu dàgg gasante ak yow ci yi nga doon def lii de defoon nga ko lu taxoon nga def ko nga ne nangam ak nangam xam nga ne loolu wérutoon nga ne déedéet wérut muy benn buñ la ko jàppalee noolu rek kon yow xamal ni yow fee nga jëm moo tax mu ne waa maaman ndaal ki nga xam ne uutiya joxeef na ko kitaabahu téeréem waraa zahrihi ci ginnaawi ginnaawam ndaxte waxtu woowu fekk na ñang ko njoñ jël loxo yi takk ko ca loos wa kon buñ koy jox téeréem foofu la koy jëlee loolu mooy waraa zahrihi mu ne kooku fa sawfa yad'u xalse naa woo subuuran ay alkaande wa yaslaa dina jaaru sa'iiran safara suusu nga xam ne mooy sa'iir lu tax loolu innahu na moom kat kaana nekkoon na ci àdduna fiyaali ci biir njabootam masruuran mu nekkoon ku doon bégee ya nga xam ne mooy mbiri àdduna ya innahu moom zanna dafa joortu woon ni an lan lixuura ba du fii ci kanamu boromam yàlla mu ne balaa a kay inna rabbahu naka boromam kaana nekkoon na basiran di aji xam bi ci moom fala uqsimu duma giñ sax bi shafaqi ci xonq xonq yooyu nga xam ne moom mooy topp jant bi waxtu wa mu sowee yàlla mu ne duma ca giñ sax mooy giñ na ci gis nga yàlla moom mooy ki nga xam ne moom mooy buur lépp moom moo ko moom bu ko neexee mu waat ci mbindeefam yu lu ko neex moo tax ngay dégg yàlla naan waat naa ci nangam waat naa ci nangam waat naa ci lile ak lee moom moo ko sañ moo koy def waaye képp koo xam ne nii yaa ngi nekk ci kaw suuf ngay waat ci yàlla rek nga war a waatee boo ko deful def nga bakk bàkkaar boo xam ne nii bu la ko yàlla baalut kon di nga dugg moom safara ndaxte loolu bokkaale la te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu ko bis bi nga xamee ni Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu dafa toog mu waat ci kanamu yonent bi te bi mu doon waat mi ngi doon wax lu tolloog ñun li ñuy wax rek naan sama geñol bàyyi mooy waat naa ci sama baay yonent bi xamal ko ne ko ey Omar booy waat waatal ci yàlla walla nga noppi boo ta waat ci yàlla bul waat noppil man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut na nga waat ci yàlla te noppi kon waat moom ci yàlla rek lañ ko war a def waaye nga toog naan maa ngi waat ci diw ak diw wala bu dul woon diw ak diw ak diw nangam ak nangam du am yooyu yëpp na nga xam ni ay bàkkaar la yooyu fàggu te boo demee boo ko tuubut boo demee yàlla mën na la cee dugal safara moo tax yàlla moom ci lu ko neex lay waat mu ne wal layli giiñ naa ci guddi wa maa ak li nga xam ne wasaqa boole na ko wal qamari giiñ naa ci weer wi ida tasaqa ndem dem na ba mat ba wër la tarkabunna di ngeen yéeg tabaqan ndëpp an tabaqin ci kaw ndëpp fama lahum loog ñoom laa yuminuuna duñu gëm wa ida quri'a dem jàngeef na alayhim ci ñoom alquraanu alquraan ji ñoom laa yasjuduuna duñ ca sujjoot mooy ñu ragal yàlla ci alquraan jooju nga xam ne jàng nañ ko ba mu waral leen ñuy julli ñoom daawuñ ko def de bal li fi mooy alladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi ñoom yu ka ñoo yukadibuuna ñoom ñooy weddi ak dekki wallahu a aalamu moo xam bi ma ci li nga xam ne yuuxuuna def nañ ko wattu fa bashirhum ñooñu na nga leen xamal waxoon nañ baatu basara bu ñëwee ànd ak mbugal ko firee bégle waaye mbugal lañ koy wax mooy nang leen xamal kon fa basirum nang leen xamal bi adabin ci mbugal alimin bu daaji metti illa alladina lu mooy ñi nga xam ne amanu ñoo gëm wa amilu ñu jëf alsalihaati faratay ba teg ci naafila lawum ñeel na leen ajrun yool gayru mamnunin bu nekkul di aji dog de suuratul buruuji moom it màkka la wàccee ñaar fukki ñoo ci nekk ak ñaar yàlla ne bismillahi irrahmani irrahim wasamaayi giñ naa ci asamaan daatil buruuji yi boromi ngunu wal yawmi ak bisba ba almawuudi bi nga xam ne moom la ñuy tëkkoo nit ñi muy bis penc yàlla mu ne maa ngi ciy giñ wa shaahidin ak it aji seede wa mashhuudin ak li seede yooyu yëpp yàlla mu ne maa ngi ciy giñ lan la yàlla di giñ li muy giñ te ndiwu ko fay mooy bis penc dina am yéen ñëpp di ngeen dekki kenn ku nekk dina taxaw ci kanamu boromam yàlla fay ko lépp lu nga xam ne jëfoon na ko ci kaw suuf mu ne la qutila rayeef na asxaabul uxduudi waa pax ya asxaabul uxduud histoire la bu gudd lool waaye ñu gàttal ci tuuti rek mooy lan ginnaaw yonent yàlla isa dafa amoon xeet woo xam ne nii ginnaaw bañ ko gëmee ñu am buur boo xam ne nii dafa weddi yàlla delluwaat ci jaamu yahudiya ndaxte ay maamam ay yahud lañ woon loolu moo doon lan saba yi mi nga xam ne moom lañ fi doon jàng seeni mbir ba seen buur ya ñu leen doon tuddee xaw ma tubba benn jamono am na benn buur bu ca génnoon bokk ci muluugu tubba yi mu doon murif ibnu sabayin moom mi nga xam ne moom mooy doomi sabay ci boppam ñooñu nag ñi nga xam ne waa saba yi ginnaaw ba seen nguur ga tase dañoo tasaaro am ci ñoom ñu dem dëkki boori xijaaz bu waxee xijaaz nag waxtu woowa moo doon am ñu dëkkee madina ñeneen ñu dem dëkki boori xabroon moom buur boobu nag nga xam ne moo doon tabbaan ibnu asad ñu ko daan woowee abu kurayb moom mooy ki nga xam ne moom yahudiya ci la nekkoon ginnaaw ga nag yàlla yónne isa ñu indi diine masixiya am ci ñoo xam ne nii gëm nañ diine ju bees ji waaye ginnaaw buur boobu di abu kurayb mu am doom joo xam ne nii ci giiram gi la bokk Modon surat suraat zuraata ibnu tabban asad kooku nag moom buur boobu moom lañ daan dàkkantalee zanuwaas moom moomu nag moom moo dogaloon ne képp koo xam ne nii danga nekk ci diine ju bees ji di masixiya dañ lay rey ndaxte moom dafa delluwaat ci diine maamam ya di yahudiya te kon ñëpp ñi nekk ci dëkk bi dañoo war a topp loolu nga xam ne moom ca la nekk moo tax mu dogaloon ne ginnaaw bi nga xamee ni wax nañ ne ko ñi ëpp ci dëkk bi de nekkuñ ci sa diine waaye ci diine ju bees ji lañ ne mu ne kon ñooñu foog ma teg ci ñoom ab mbugal mu daldi di génne benn li ñuy tuddee léegi décret loi mu def benn yoon mu ne képp koo xam ne ni léegi nekk nga ci diina ju bees ji dañ lay rey te loolu moom moo jiite xare bi nga xam ne ñoom ñooy saytu loolu mu takk xareem bi ñëw ci dëkk bi daldi gas ay pax pax yu xóot daldi jël ay safara def ca pax ya ñuy woowaa dëkk bi nag kenn par kenn ku ñëw rek ñu laaj la yow ci jën nga nekk boo ne masixiya ñu ni la génn ci walla ñu ray la boo ci génnee ñu bàyyi la nga dem boo ci génnut ñu dugal la ci pax mi nga lakk ba jeex mu nekkee ñoom ñooñu ba am benn waay joo xam ne nii mu dawee fa waaja nag ba mu fa dawee mi ngi doon uti loo xam ne nii moom lañ koy dimbalee te ca ñam ko yaakaar mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom diine di diine masixiya waa jooju moo doon daws zu salabaan ñu ko koy dàkkantalee mu daa daw dem ba Qaysar te Qaysar moo doon Rom bi mu ñëwee Rom ci pape bi fekk ko fa mu ne ko ñun kat ñoo bokk ak yow diine waaye fa ñu dëkk ñi ngi ñu fay néewal doole dañoo bëgg nag nga dimbali ñu ndaxte kat ñi ngi ñuy rey di ñu faagaagal buurub rom boobu daa di yónni benn armée mu jëm fa ngir xetali leen waaye waaja yamu ca mu daa di demit ba xabasa te xabasa xamoon nañ ni ñoom it ci diine masiixiya lañ nekkoon mu ñëwee mu fekk fa buur ba di najaasi mu ne ko ñun suñu dëkk dañoo gëm diine masiixiya ñun ak yow ñoo bokk lu ñu gëm waaye ñu ngi fay néewal doole di ñu rey dañoo bëggoon xetali nga xettali ñu ci waa jooju nga xam ne mi ngi ñuy mbugal moom buur bay daal di yónnee armée mu jóge fa di ñëw ngir ñu xettali si leen loolu nag buur boobu ke yónniwul mu jóge xabasa moo doon benn waay la mu nekkoon généralam ba waaye waaja daanaka sori rek lu dul kenn ci armeem bi yongaan na ko rey ko arme ba mujj nekk ci loxoom te kooku mooy abrahatul asram mooy leen dara jàngi ca kanam bu soobee yàlla ci suratul fiili waaye ñaari arme yi bi nga xam ne moo jógee Rome ak bi nga xam ne moo jóge Éthiopie ñu dase bi ñuy ci dëkk bi nag bis booba ñi ngi toll ci génn jigéen joo xam ne nii moom lañ doon laaj tan gëm jigéen ji moom ndekete mi ngi yore doomam ju ndaw ju muy nàmpal mi ngi am xel ñaar naan waa man ndax dama war a weddi diine ju bees ji nekk di dund yore sama doom nàmpal ko wala ndax dama war sax ci li ma war nekk ñu ñu rey ma ma dee ma bàyyi sama doom ginnaaw te duma xam ci lu mu ne bi mu nekkee ci loolu rek doom ja yàlla jox ko kàddu mu wax ak ndey ja mu ne ko éy yaay yow yaa nekk ci dëgg bul nangu mukk di dellu ginnaaw ci diine ji nga nekk mu ne bi mu waxee loolu rek yaay ja daldi di daldi jël doom ji teg ci suuf ne leen lépp lu ngeen neex def leen far nag ñaari armée yooyu egsi rek ñu dal ci buur ba rey ko moom far doom moom mu sowe waale ca deewu ca ñooñu nag la yàlla di wax naan qutila rayeef na asxaabul uxduudi waa pax ya ñi nga xam ne dañ leen daan rey dugal ci safara sa ñu lakk ba jeex mu ne an naari safara ja zaatil waquudi boromi tàkk-tàkk idhum ba ñoom qucuudun way toog lañ alayha fa safara sa wahum te ñoom suhudun way seede lañ ala maa a nga xam ne yaqu yafaaluuna dinañ ko def bil muminina ci jullit ña mu ne ñoom ñëpp ñi ngi doon gis li nga xam ne ñi ngi ko doon def jullit ña waxtu woowale wa ma naqabu ayibaluñu minhum ci ñoom jullit ñooñu illa an yuminu lu may dañoo gëm billaahi ci yàlla al azizi muy aji not ci kàttan alhamidi mu di ku ñu sant mooy amul benn bàkkaar bu ñu def bañ war leen cee rey lu dul ñoom dañoo wax rek ne yàlla daal lañuy jaamu ci diine ji nga xam ne mu ne alladi yàlla moomu mooy buur bi nga xam ne lahu ñeel na ko mulku samawaati nguurug asamaan gi wal ardi ak suuf wallahu yàlla shahidun aji seede la ala kulli shay'in ci lépp lëf inna alladina naka ñi nga xam ne fatanu ñoo fitnaal almuminina julit yu góor yi wal muminaati ak yu jigéen ñi summa topp lam yatuubu tuubuñu falawum ñeel na leen adaabu jahannama mbugalum safara walawum ñeel na leen adaabul xariqi mbugalum lakk inna alladina naka ñi nga xam ne amanu ñoo gëm alquran wa amilu ñu jëf as saalihaati farata yi ba teg ci naafila ñooñu lahum ñeel na leen jannaatun ay àjjana yoo xam ne nii tajri dina daw min taxtiyaa ci suufam al anhaaru yoon de yent ya loolu de alfawzu mooy texe alkabiir bu daaji màgg inna batsha rabbika naka sa téeg borom la shadidun aji dëgër la mu innahu moom yàlla huwa moom yubdiwu mooy tàmbalee mbind wa yuiidu moo koy delloo siwaat mooy mooy jëlee nit ci ñàkk def ko mu nekk nit ginnaaw ga bu deewee moom moo koy delloo waat mu dundaat woowa moom yàlla alxafuuru mooy aji jéggale alwaduudu mooy ku ñu sopp ki yàlla moomu dul arshi moom mooy borom arash ga almajid bi nga xam ne moo aji màgg فعال يلا مو جفا كون لا لما يريد ني ليب لو خامني ني نام نكو موم موي كيغا خامني ليب لو مو بغ ريك لول لاي ديف دي هل اتاكا ناخ ديكلوت لا وون حديث الجنود وقتانو للو فرعون موي نيتو فرعون يا اك nit samuuda ya nga ne ah jaaroon na fi mu ne bal li fi ne alladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi ñoom defi takdibin ñoo nekk ci narloo wallahu yàlla muxiitun aji xam la xam-xam bu peek min waraayim bu nekk seen ginnaaw bal li fi ne mooy huwa moom alquran mii alquranun lu ñuy jàng la waaye majiidun aji tedd la fii lawxin moom moo nekk ci lawxu maxfuudin bu di bu ñu wattu ba suuratu taariqi saari aji dox ji guddi màkka la wàccee fukki ay ñoo ci nekk ak juróom ñaar yàlla ne bismillahi irrahmani irrahim wassamaayi giñ naa ci asamaan wa taariqi ak aji dox ji guddi mooy biddéew boobu nga xam ne guddi rek lay génn moom nga koy gis boo ko gisee bu yàggee mu suux wa ma adraka lan moo la xamal ma taariqu lan mooy aji dox ji guddi mu ne an najmu mooy biddéew ba as saaqibu bi aji leer in kullu nafsin déet bépp bakkan la maa alayha la nekk fa moom xaafisu nekk lu ñuy wattu fal yanzur na xool al insaanu nit mimma ci lan xuliqa la bindeef ko xuliqa bindeef na ko mimmaayin jëlee ko ci ndox daafiqin buy aji jiñu ndox moo xam ne nii yaxruju day génn min bayni sulbi diggante ndiggal góor wa taraa'ibi ak dillibaati jigéen innahu moom yàlla ala raj'ihi ci delloo si waat nit kooku la qaadirun aji am kàttan la ci loolu kañ la koy def mu ne yow ma tublaa mooy bis ba def na nattu bis ba def na feeñal asaraa'iru mbóot ya lépp lu nëbb woon yàlla génnee ko mu feeñ yàlla mu ne su boobaa fama lahu déddi ñeel ko moom nit min quwatin ci benn kattan wala daasirin du caagin génn aji tere walis mbugalum yàlla ma wasamaay giñ naa ci asamaan zaati rajci mi nga xam ne mooy borom ak taw wal ardi giñ naa ci suuf zaati sadci muy borom ak xotteeku innahu naka alquran mii la qawlun wax la faslun buy aji teqali dëgg ak caaxaan wa maa huwa te déet moom alquran mii bil hasli mu nekk yi mboosóor innahum ñoom yakiiduuna dañuy fexe kay dan ay pexe waa kii du man yàlla may dogal kay dan ay dogal kon fa mahil mu ñëlal alkaafirina yéeféer yi amhilhum mu muñal leen rek lu way dan ndànk jamono ju tuuti rek ju yàggut suuratul ala màkka la wàccee fukki ay ñoo ci nekk ak juróom-ñeent yàlla ya ne bismillahi irrahmani irrahim sabbaha sabbaal na sabbih sabbaalal isma rabbika sa borom al ala bu way kawe abu daawud ak ibnu maaja génnee nañ ñu ne jëlee nañ ci uqubata ibnu amir aljahani mu ne bi nga xamee ni yàlla wàcce na ci alquran wax ne fa sabbeex bismi rabbika al azim mu ne booba yonent bi daf ñoo wax ne ñu jël leen loolu ngeen def ko ci seen rukoo mooy bu ngeen di rukoo ngeen wax subhaana rabbiyal azimi mu ne biñ demee ba saar wi wàccit yàlla ne sabbih isma rabbikal a'la mu ne jël leen loolu ngeen def ko seen sujood mooy nangeen ngeen di wax subhaana rabbiyal a'la loolu mooy sunna ci li nga xam ne moom lañuy def bu ñuy julli moo tax yàlla ne sabbih sabbaalal isma rabbika sa turu borom al a'la bu way kawe alladi mooy ki nga xam ne xalaqa bind na fa sawaa mu yamale walladi mooy ki nga xam ne qaddara xereñ na fa da mu jubal walladi mooy ki nga xam ne axraja génnee na almaraa parluwaayi fa jaalahu mu def ko xusaan mu nekk mboob axwaa bu di way ñuul foofu borom xam-xam yu mujj jamono nee nañ fii la yàlla di tudd charbon de bois mooy këriñ gi nga xam ne moo nekk ci biir suuf si te loolu li ko ko def mooy lam nekkoon lu yàgg moo xam amaan na ay yaxu mbindeef la woon yu nekkoon ci kaw suuf dee jamono ju yàgg mu mujj mujj nekk këriñ wala mu nekk garab gi nga xam ne ñoo fi nekkoon yàgg fi lool ba dugg ci biir suuf si yàgg gi ñu yàgg ci biir suuf nag tax na mu nekk këriñ mu ne moom la yàlla di wax fii naan fa jaalahu gusaan axwa yàlla bu jël ko mu nekk mboob moo xam ne nii bu ñuul la sa nuqriw ka dinañ la jàngal dinañ la sax falaatan saa ba doo fàtte illaa maa mooy li nga xam ne shaa soob na allahu yàlla innahu moom yàlla yaalamu moo xam aljahra lu ñu biral ci wax wa maa ak li nga xam ne yaxfaa moo nëbbut ci wax lépp rek yàlla xam na ko wanu wa nuyassiruka dinañ la jàppandal lil yusra ñeel aji jàppandal fa dhakkir na waare in nafaat ndéem dina jariñ ak zikra ak waar sa yadakkaru dina waaru man ki nga xam ne yaxsha day ragal boromam wa yatajannabuha dina ko teet nag al ashqa aji texee mooy ki nga xam ne yaslaa day jaaru annaara safara sa alkubra wi di way màgg suma topp laa yamuutu du dee fiyaa ci biir safara wala yaxya te it du fa dund ndaxte yàlla nee na booba dee amatul niñ ko jànge woon ca démb sa moo doon waxtu wi nga xamee ni ñuy dugg àjjana dugg nañu àjjana ñiy dugg safara dugg safara ñi nga xam ne ñoom ñooy mujjee génn safara dem àjjana lool it am na ba pare te ñooñu waxoon nañ ni buñ demee àjjana béréb ba nga xam ne moom la ñuy nekk ci biir àjjana la ñuy tuddee aljahannamiyuun mooy quartier boobu nga xam ne ñi jóge safara ñëw àjjana ñoo koy dëkkee buñ demee nag ba nga xam ne loolu lépp jeex na léegi képp ku nekk àjjana yaa nga fa kuy nekk safara yaa nga fa te kenn ku nekk fa nga nekk yàlla dogal na ni foofu ngay nekk sax fa yàlla day yebal malaaka mu indi am xar xar moomu nag ndekete du am xar waaye dee mooy ñëw ci melokaanum xar ñu teg ko nag ci digg ajana ak safara ñu wax waa safara ndax xam ngeen kii ñu ne kii kay xam nañ ko kii mooy dee ñu laaj waa ajana ndax xam ngeen ko ñu ne xam nañ ko kii mooy dee yàlla daal di jox ndigal malaaka mu tëral xar ma rendi ko ñu rendi ko ñu ne kon nag léegi dee ci boppam dee na dee amatut képp képp kenn ci ne ñi fa ne foofu ngay béloo moo tax kon ki nekk biir safara dootul mënati dee ndaxte dee amatut waaye ci li mu nekk nekkul xéewal goo xam ne nii dañ koy mën a tuddee ak dundu moo tax yàlla mu ne laa yamutu fiiha wala yaxya mu ne qad aflaxa texe na man ki nga xam ne ka sell na wa zakara mu tudd isma rabbihi turu boromam fa salla mu daan julli julli juróom ya balli fi mooy ñi nga xam ne gëmuñu woon dikku bis penc ñooñu tuusiruuna dañuy ëfël mooy dañuy gën a bëgg alxayaata dunya dund àdduna bi wala axiratu alaxira nag xayrun moo gën wa abqaate moo gën a des inna haada naka wax ji mu ne la fi suxfil ula nekkoon na ca téere yu njëkk ya mu ne lii benn citation la boo xam ne nii yàlla da koo jële ca téere yu njëkk ya mi ngi tàmbalee qad aflaha man tazakka wa dakara asma rabbihi fa salla bal tuusiruna alxayaata addunya wal axiratu xayrun wa abqa mu ne lii wax jii nekkoon na ca téere yu njëkk ya ma toxal ko fa indi waat ko ci alxuraan mii ndax ngeen jàng ko ndax ngeen waaru ci moo tax mu ne inna haada naka wax ji la fi suxufi nekkoon na ca téere yàlla wula yi di way njëkk yan téere la nekkoon suxufi ibrahima téere muus ibrahima ya wa muusa ak téere muusa ya ma nga ca woon suuratul xaasiyati makka la wàccee ñaar fukki ay ñoo ci nekk ak juróom benn yàlla mu ne bismillahi irrahmani irrahim halaataaka ndax dikkalut la woon xadiisul xaasiyati waxtaanu bis penc ah, kay jaaroon na fi yàlla mu ne ma waxaat lan la ci leneen mu ne wujuhun ay xar kanam ma idin keroog bis penc xaashiatun aji torox lañu aamilatun aji liggéey lañu naasibatun aji sonn lañu ndaxte ba ñuy nekk àdduna dañoo defalu loon yàlla lenn moo tax foofu moom dinañ fa sonn dañ fay torox te liggéey dong lañ fay nekke yàlla mu ne taslaa dina jaaru ko naaran safara xaamiyatan bu daaji tàng tusqaa def na leen nandal ay aynin ci sewnde aaniyatin bu daaji tàng laysa lahum déet di ñee leen foofu ci safara taamun benn ñam illaa min dariin lu mooy ci xom-xom lay nekk nekk na garab joo xam ne daa bëri dég ba pare wexxat moo tax amatul kenn njëriñ mu ne moo tax mu ne garab googu laa yusminu du duufal lekk ko du taxa am yaram wala yugni te du jariñit min juuin ci xiif boo xiifee ba lekk ko it du tax nga suur mu ne wujuhun ay xar kanam dispenc pénc yow may din keroog naa'imatun yu aji nooy lañu aji rafet lañu mu ne loolu nag lu ko waral mu ne ñoom ñoom ñoom xar kanam yooyu radiyatul aji gërëm lañ li sax yaa ñeel doxam mooy lañ doon dox nekkee woon ko àdduna bu leen ko yàlla fayee bis bent ñoom dañ cay kontaan dañ koy gërëm moo tax fii jannatin ci àjjana ya la ñuy nekk àjjana yoo xam ne nii aaliyatin aji kawe lañu laa tusmahu deefut dégg fiyaa ci àjjana yooyu laaxiyatun benn mboosóor fiyaa nekk na ca aynun sewnde jaariyatun yu di way daw fiyaa nekk na ca sururun ay lal marfuatun yu ñu yëkkati wa akwaabun ak i kopp mawduatun yu di yu ñu tëral yu ñu teg wana maariqu ak i ay darab wala ay njegenaay masfuufatun yu ñu rankale wa zarabiyu ak i darab mabsuusatun yu ñu tàllal afala na xanaa dañoo xoolut ilal ibili jëm ci giléem mi kayfa xuliqat naka la bindeef ko ndaxte boo xoolee ci giléem mën nga cee waaru ba xam ci sa borom ne ki def lii moom moo am kàttan ba def ko moom it moom moo yeyoo ñu war koo jaamu ndaxte giléem nekk na mbindeef moo xam ne nii ni mu toll ci rëy bu fekkoon de yàlla tàggatal la ko amut lenn loo ko mënal waaye tàggat gi ko yàlla tàggat tax na boo ko bëggee rey sax dang nga koy rey jëfandikoo yàpp wi bu fekkee neex na la mën nga koo def waruwaay di ci yéeg mu yóbbu la ci béréb yu soree sori romb ak yow désert bi tey giléem nekk na loo xam ne nii fi mu jaaroon bi muy dem buy dëpp foofu lay jaaraat moom dafa mel ni yàlla da koo defal benn raadaar ci bopp bi moom bu ko xamut it yow boo ko xamut moom xam na fi mu jaaroon ba fi mu tegoon tànk ba mu muy dem buy dëppit foofu lay tegaat ab tànkam mu nekkit loo xam ne nii mën naa nekk ak yow ci désert bi du lekk du naan te du ko soxla ndaxte yàlla defal na ko ci yaramam wi loo xam ne nii moom dina ko doy wëlis lekk ak naan te mu nekkee ko ay weer moo taxit nekk na koo xam ne nii buy naan mën na fee naan lu baree baree baree bari te moom rek moom moo mel noona te désert bi boo ko gisee ni mu mel moom moom moom giléem tànk yi ci suuf dafa mel ni njege njegeenaay moo ca nekk dafa doy nepp ba buy dox moom day tegu ca kaw ca kaw suuf sa lay tegu waaye tànk yi du dugg ci biir ci biir suuf si te yow nit boo doon dox sa tànk yi ci suuf nga koy jëlee ji moom nag moo la ëpp gën laa diis waaye ak loolu lépp tànk mi moom du mës a dugg ci biir suuf si te buy dox ci fu fu fu dëgërit dëgëraay boobu du ko mën a du ko mës a sonal mooy nim mënee doxee ci désert bi ci nooy mu nekk ca kaw noonu la mën a doxee ci ay xeer te xeer ya duñ ko gaañ ndax tànk ya na ko yàlla bindee la yàlla nag mu ne la yow nit xoolal giléem gii ni mu ko bindee te da ngay gis ne xoolal giléem gone gu ndaw moo koy yore di ko omat te fu ko jëmale mu jëm fa moo tax mu ne xoolal giléem gi ni mu ko bindee wa ila samaayi xoolal ci asamaan kayfa rufiat naka la ko yàlla yëkkatee mu nekk yëkkati boo xam ne am téeg la mu tiim la te ba léegi musta daanu amul kenn ku mës dégg ne béréb sàngam asamaan si daanu woon na fa musta am te am te da ngay xool mu ngi nekk ab toiture bu la tiim boo xam ne nii amul lenn loo xam ne di nga ko gis moo ko téye bi xayri amadin tarawnaha mu ne noonu la ko yàlla bindee moom asamaan waylal jibaali xoolal ci doj yi kayfa nusibat naka la sampeef leen ci kaw suuf si nga gis doj wi waaye li ngay gis ci moom li nekk ci moom ci biir suuf si moo gën a bëri ndaxte dem nañ ba xam ne ndekete doj yi dañoo am ay reen ni ko garab yi amee reenam yooyu mi ngi nekk ci biir suuf si téye suuf si loolu moo tax la yàlla waxoon antamida bikum du am suuf si ni muy dawee du daanu ak ñun ndaxte montagne yi fi nekk ñoo ko moo tax mu ne waydal jibaali kayfa nusibat waydal ardi xoolal suuf si kayfa sutihat naka tàllaleef ko ndaxte tàllal ki ko yàlla tàllal tax na yow boo fa nekkee mën nga cee am tool boo mën a bayee mën nga fee am ndox moo mën a naanee nga ciy dox num la neexee te doo daanu mukk de waaye yow yaa jàpp ne dafa tàllalu ndekete tàllalu luut waaye dafa dafa wërngalu waaye yow ci sa ci sa gis-gis ak sa dégg-dégg moom moom mi ngi jàpp ne dafa tàllalu ba yow booy doxit tàllalu gi ngay yëg moo loolu mooy xoolal suuf si naka lañ ko tàllalee mu ne fa zakkir na waare nag innama anta naka yow mudakkirun aji waare nga lasta nekkuloo bi musaytir di aji ku ñu xiir alayhim ci seen kaw mun a yàlla yónniwu la rek nga nekk takk der ci ñoom ngoo xam ne ba te ñépp war a gëmee par force mu ne déedéet yow kay yàlla dalaa yónni rek ngir nga waare ku waaru baax na ku waaruwut it boppam la koy def kon lasta alayhim bi mu soytir illaa man lu mooy ki nga xam ne tawallaa dëdduna wa kafara mu weddi fa yuazibuhu kooku dina ko mbugal allahu yàlla al azaaba mbugal ma al akbara bu di gën a màgg inna yaabahum naka seenug dellu ilay naa jëm na ci ñiin yàlla suma topp inna xisaabahum naka seen xisaab alay naa war nañu ñun yàlla suuratul fajri makka la wàccee ñoo ci nekk yàlla ne bismillahi rrahmani rrahim wal fajri giiñ naa ci waxtu fajar wi wala nga ne wal fajri giiñ naa ci waxtu fajar woowu nga xam ne mooy bisub tabaski ba wala fajaru bisub ba wala fajaru bisub àjjuma ba wala boog nga ne mooy bis bi nga xam ne moom la yàlla doon bind ca la nga xam ne moom la njëkk bind mu xar ko jële fa lam ca bind ginnaaw ba mu xaree loolu bind ca lam ca bind mu ne loolu mooy fajar nga dégg nag am koo xam ne nii moom na muy firee loolu am njuum tereem la te xamu ko moo tax ndaxte am na ñetti bayit muy ay way yoo xam ne nii boo demee ci yenn téere yi danga ko fa fekk mu naan la tatahar bi maa il xaybi in kunta daa sirrin wa illaa tayammam bi saciidi wa bi saxri wa qaddim imaaman kunta anta imaamahu wa salli salaat alfajri fi awali alcasri mu ne la fa haadihi salaatu alcaarifiina bi rabbihim fa in kunta minhum faddaji lbahra bilbahri faddaxil barra bilbahri loolu nekk na wax ju xóot joo xam ne nii amaan na ki koy jéem a wax sax du ko xam kon dina jafe ci koy koy dégg mën koo xam waaye nañ ci dégg rekk ne am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ni nii ni ñuy jaamoo yàlla mooy ñoom bu ñuy jaamu yàlla dañuy fàttaliku waxtu wi nga xam ne yàlla bindoon na leen ca ca bind gu njëkk ga boobu nga xam ne dara amutoon te ci leeru yàlla gi la leen yàlla jële bind leen ñooñu bu ñuy jaamu yàlla waxtu woowu mooy nekk ci seen xel ñu ànd ak teewlu mu ne la nag kooku bu ñëwee àdduna dem ba jëmmi jamono loolu nga fàtte woon ko waaye nga toog ba bis ba benn bis rek yàlla def nga fàttalikuwaat loolu nga xamaat ko te gis nga xam-xam moom moo jiitu ak réer te yooyu yàlla waxoon nañu ko ba ñuy jàng suratul rahman dane woon arrahmaanu allama alqur'ana xalaqa insaana allamahul bayaan mu ne arrahmaanu yàlla allama xamle na alquraan kan la ko xamal al insaana nit kon lu tax mu njëkk a indi xam ba pare doo ko indi nit ndaxte xam géela fi jiitu moo tax mu ne allama alquraana ba pare xalaqal insaana mu doog bind nit kon moo la fi jiitu moo tax nag yow mu ne de dem nga ba léegi yaa ngi jiital koo xam ne nii yow yaa ko jiitu woon loolu mooy lan mooy tolloon nga foo xam ne nii xam-xam nekkutoon ci yow ba sa bànneexu bakkan moom nga daan topp ci yu bari waaye nga dem nag ba jëmmi jamono yàlla def nga jàng nga xam li yonent bi defoon ak nam ko defee woon léegi loolu ngay jiital ci leneen kon yonent bi nga xam ne moom nga defoon ci sa ginnaaw léegi moom nga jiital loolu mooy dim imaaman anta kunta anta imaamahu yow yaa ko jiitu woon léegi moom nga jiital mu ne nag waxtu woowee boo demee ba xam loola comportement bi ngay am mooy léegi yow waxtu fajar wa wala waxtu tàkkusaan yaa ngi koy julli ca waxtu fajar ma dégg nag benn waay firi ko mu ne am na ñoo xam ne nii ñoom boo ñëwee di julli si ñoom dañ naan la saa waay jiiteel rek ndaxte ñoom gëmuñ sa julli gi yow ñaan la jiiteel jiiteel ndaxte ñoom gëm nañ ni julli moom bi ci nekk farata rek mooy tàkkusaan te bi ko jëlee ci way wile ak njuumte moo ko ko yóbbee ndaa daa xamut li ñuy wax moo tax moo tax li gën mooy mbir boo ko xamut bul ca wax ndaxte boo ko waxee njuumte mën na la jaa fekk loolu ka ko xam moo ko xam am na koo xam ne nii xam na ni waxtu wi ngay julli tàkkusaan waxtu woowu amaan na waxtu leneen la amaan na yow jamono moo toll rek indi tàkkusaan ñu toll ci tàkkusaan julli ko waaye moom moom mi ngi jullil yàlla mosu cee jóg ci julli la dëkk loolu mooy was wasjud waqtarib moom julli moom mësu cee jóg ci loolu rekk la nekk kooku boo ne ko kaay julli danga danga dalay ree moom la yàlla doon wax Muusa naan ko na nga tu na julli ngir nga jege sa borom kon yooyu dafa nekk yoo xam ne nii bu ci xamut ku ci xamut lenn bu mu ca jéem a wax lenn ka ca xamit boo cay wax na ko wax ci noo wax am anam woo xam ne nii yaakaar nga ni boo ko waxee nit ñi dinañ la dégg bu la leeree ni boo ko waxee duñ la dégg boo ko waxee yaa leen tooñ ndaxte yaa leen nattoo loo xam ne ni seenu dégg-dégg àggu ca te loolu nag mu wuteeg li yonent wax naan yow yàlla bul ñu nattoo loo xam ne ni maa laa taaqata lanaa bi ñii na nga ñattoo leen wax leen wax joo xam ne ni egguñ ca ñu weddi la su boobaa weddi wuñ la rek waaye dañuy am bàkkaar te loolu yaa leen ko teg kon na nekk ay wax yoo xam ne nii ñëpp waruñ ca wax boo koy waxit it na nga xam fa nga koy wax na nga it la nga cay wax nga tollole ko ba yaakaar nga ni ña koy dégg dinañ ko dégg moo tax mu ne wal fajari giiñ naa ci waxtu woowu di waxtu fajar wala waxtu woowu nga xam ne moom la yàlla njëkk a bind jaam ña wa shafi giiñ naa ci lépp loo xam ne nii lu tollantiku la wal witri ak lu tool wallayli giiñ naa ci guddi ida yasri ndéem dëddu na ba joxe ginnaaw lan la yàlla di giiñ li muy giiñ mooy jawaabul xasam bi mu ne mooy yéen yéeféer yi képp ku jaamu yàlla bu demee ci moom dina ko mbugal loolu mooy jawaabu xasam mu ne hal fii daalika ndax nekkut ci lii xasamun aji giiñ li di borom xel ah kay ngiiñ a kii de alam tara mu ne wal wal fajri bi mu génnee ci fajar ba pare mu ne wala yaalin maa ngi génn ci guddi yooyu nga xam ne asrin fukk lañ mooy fukki fani tabaski ya nga xam ne moom la yàlla di génn mooy wala yaalin asri والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك نحن كتلول قسم نجين لذي حجين تبرم خل أهكا نجين يجده ألم ترى نخملو كيف فعل نكال رفون ربك صبر بعاد تني عادنا إرم موي إرم ذات العماد مو نيغا خمني نيوم نيوي برم كنويا allati keno yi nga xam ne lam yuxlaq musee suta bind misluhaa lu ni mel fil bilaadi ci réew ya ndaxte yàlla mayoon na leen ab xam-xam xam-xam boo xam ne ni ak ak lii mooy li ñu tuddee expertise amoon nañ ko boo xam ne nii dañuy xam nan la ñuy yettee montagne yi ba def ci ay kër kër yoo xam ne nii boo ko doon xool ba tey yàlla nee na kenn mësul def ni mel kon ñun bu ñu yaakaar ni yi ñuy tabax mu jëm asamaan ba kawe lool dina dab yooyu nga xam ne ñooñu tabaxoon nañ ko ci kaw suuf ndaxte léegi gratte yi yàlla def na ni mën nañoo tabax lu ne mu dem ba ca kaw niir ya nga koy gis mu kawee lool waaye yàlla nee na yooyu ñooñu bindoon ma lam yuxlaq misluha fil di amul kenn ku mës a def lu ni mel wa samuuda nitu samuuda ya na ñi nga xam ne jaabu ñoom ñoo dagg assaxra doj yi bilwaa di jaarale ci ay xur moom mooy xur wi dafa nekkoon aw yoonam waaye bi mu ñëwee ba ci doj yi montagne yi téye ko ba munta jàll ñoom ñoo dagg du montagne yi ba jaarale xur ya ñu romb montagne yi dem ba ca weneen yoon wa wa firawna ak ditu firawna dil awtaadi moom mi nga xam ne moom mooy borom daadi ya alladina ñi nga xam ne taxaw dañoo beewoon fil bilaadi ci réew yi fa aktaru ñu bari loon fiyaa ci réew mi alfasaada ak yàq fa sabba sotti alayhim ci seen kaw rabbuka sa borom sawta adaabin yarab mbugal inna rabbaka naka la naka sa borom la bil mirsaadi nekk na di aji fuglu rek mi ngi xaar moom yàkkamtiwut ndaxte koo xam ne du rëcc kooku yarul jarul jàkkamti mi ngi mel ni rek li wolof di léeb naan sàcc bu dul raw jarta yàqi nelaw mooy loolu mooy inna rabbaka labil misaadi sa borom mi ngi nekk di xaar ndaxte xam na ni amul kenn koo xam ne dina ko rëcc fa amal insaanu daal nit ida mabtalaahu ndéem nattu na ko rabbuhu boromam fa akramahu mu teral ko ba jox ko alal jox ko wér gi wér gi yaram mu jox ko mbooloo niñu ñu topp ko wa naamahu mu xéewal ko fa yaquulu kooku day wax ne man kat rabbi sama borom akramani teral na ma wa amma ida mabtalaahu ndeel ndéem nag nattu na ko rabbuhu boromam fa qadara mu xatal alayhi ci moom risquhu wërsëgam fa yaquulu day wax ne rabbiya sama borom moom de ahaana ni doyadal na ma nga xool alquran nim ko indee ak ñu niñ koy waxee ñun baatub nattu moom buñ ko waxee rek ab safaan la lu ñu bëggut la boo ne ah, yàlla da koo nattu mooy amaan na lam amoon amatu ko wér ga nekkoon ci moom nekkatut ci moom lam mënoon mënatu ko kàttanam gam amoon léegi amatu ko alalam ja amatu ko doomam ya amatu leen ñu di ñu tuddee loolu ñun ay nattu fekk nag yàlla moom ñaar yépp la wax ne nattu la mooy lan ki nga xam ne yàlla da koo jox am-am mën-mën kooku yàlla da koy nattu ndax lii yàlla jox ko dina ci def lim ci war a def walla déet ndax alal ji dina ko teg fi ko ko yàlla santam déet ndax dina ci génne asaka wala déet ndax dina ci saraxe wala déet kon kooku kay ci nattu la nekk ndaxte amul benn dërëm bu kenn di am lu dut bis penc dinañ la laaj benn dërëm bu nekk fan nga ko jëlee ak fan nga ko dugal kon kay loolu baril ci jaru ko woon daanaka am lu tuuti loo xam ne nii day doy sa soxla képp rek te doo dem ci kenn di ñaani moo gën waaye koo xam ne nii day nekk ci àdduna bi lépp lu alal rekk mu ne naa ko am naa ut lu mu gën a bari gën a baax fekkul ak du noonu te yónnente bi waxoon na ci xadis ne dinañ toll jamono joo xam ne nii nit ñi lenn doo loon yittatiri doo loon yitteel ci ni ñuy utee alal lu dul rek nañ ko am fuñ ko amee baax na kon egsi nañ ca toll nañ jamono joo xam ne nii bari da ci nit ñi loo xam ne nii dañ koy wut ci alal seen yoon nekkul ci ndax utin wi dagan na wala daganul te yónnente bi wax na ba tey mu ne na ngeen rafetal utin wi ndaxte doo ut mukk ba am loo xam ne nii waru ko woon a am lépp loo am rek yàlla dafa dogaloon ni loolu ding ko am moo tax waaye bu yàlla dogal ni doo ko am loo sonn sonn nit du tax nga am ko bari na bu ñuy gisee nit koo xam ne nii moo la ëpp doole fuuf moo la dàq liggéey fuuf te yow yaa ko ëpp alal ñaata yoon la du jeex gis dañ koo xam ne nii it naan ay ci waay waa ji moom ku gàttum xel la amul dara amul xel waaye alal jam yore du jeex ñu naan cey yàlla moo yéeme mbir moom day xool rek koo xam ne soxlawu ko sax mu jox ko ba muy tuuru lépp yàlla moo koy def kon ku ci am lu mu bari bari na xam ne ci nattu la nekk waaye boo ci amee lu tuuti yàlla dalay nattu xool yow ndax li da nga ci def li nga ci wara def wala ndax di nga xol ki la pele nga koy iñane wala nga dem di def ay yeneen mbir ngir loolu mu am mu ñàkk ko kon képp kenn ci ñoom ci natt la te yëgu moom la yàlla boole ci ñaari aaya yi ki am danaan man de yàlla daf ma teral waaye ki ñàkk danaan man yàlla daf ma doyadal fekk du loolu kenn ku nekk dafa nekk ci ay nattu moo tax yàlla ne balli fi ne mooy laa na ñoom de du ñu teral al yatiima jërim wala tuhaadduuna te du ñu ñaxeel ala taamil miskin ci leel miskin mi wa taakuluuna dañuy lekk at turaathan dono ak lan ak lekkin lam man bu di aji boole léegi daal bari na sax ñoo xam ne nii dañuy toog sax di ngéeju bu seen borom kër yi dee woon ñu donn ko ndax alal bari na ñuy ngéeju seen waajur dee ñu donn alal ja di gisit ñoo xam ne nii amaan na nekkoon nañ ci suuf si seenub am am demee wutoon noonu ñu nekk ñu ñàkk yàlla nattu leen ñu feebar feebar boba mënoo ca dërëm mënuloo ko ca waaye boo déggee ñu ne dee rek nga jóge fële ñëw indi sa alal ju bari ne nañ ko jëndal ay yëkk ak ay nangam sangam nga yaakaar ni def nga dara defoo dara alal jooju yàlla du ca fay dara te bo demee ñàkk dong nga am ak bàkkaar ndaxte kooku yàlla dafa dogal ni da doon dee boo di defutoo nit dina dee waaye yow xamoo ca dara alal jooju nga génne dugal ko ca dëj ba nga génne woon ko mu fajoo ko amaan na du dee waaye defoo ko woon njaboot gi it bari na ñoo xam ne nii dañuy ngeeju seeni waajur génn àdduna ngir ñu donn kër ya wala ngir ñu donn alal ja donn oto ya donn lépp loo xam ne nii bàyyi na ko ba pare nag ñu nekk rekk di ci def loo xam ne nii amaan na du loolu la yàlla gërëm ca alal ja moo tax bis yonent bi alayhi salaam nee na man de yéem na ma waa ji nga xam ne alalu jàmbur moo ko gënal alalam ñu ne ko yow ki yàlla yónni loolu mooy lan mu ne sa alal li nga ci moom mooy li nga xam ne danga ko lekk ba mu rees wala li nga jël jëndee ko yére sol ko ba mu ràpp wala loo xam ne nii danga koo def ci yoonu yàlla lii mooy sa alal yow loo moom lu dut loolu rek alalu keneen la ñi lay donn nga ko fi bàyyil ñaata yoon lañ gis waa joo xam ne dafa bàyyi ginaam alal ju bari doom ya njaboot ga donn ko ba pare nag ñu ciy def yoo xam ne nii yàlla bëgg ko mu ne kon loolu alalu keneen la moo tax mu ne wa taakuluuna turaasa aklan lamman wa tuhibbuuna ngeen di bëgg almaala alal xubban ak bëgg jaman bu daa ji jéggi dayoo kallaa dëgg idaa dukkat ndem mokkaleef na alardu suuf si dakkan dakkan mokkit ci kaw mokkit ñu mokkal ko ba mokk rumbax moom suuf wa jaa dikk nag rabbuka sa borom wal malaaka loolu waxin la wa jaa sa borom dikk mel ni dafa demoon mustu fee jógee yàlla bal dara balaa dara di am moom moo amoon bu lépp jeexee moo fiy des kon ana fuñ ko fi mën a naan wa jaa rabbuka dafa am ci ay waxin yoo xam ne nit ni mu ko mën a déggee la ko ko yàlla di waxee waaye terewul nag ñu war a wax ni loolu la ndaxte yàlla moom ni mu mel kenn melut noonu ni ñëpp melit yàlla melut noonu laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir bu fekkee ni yàlla day nekk jëmm joo xam ne nii béréb bii la nekk tey boo ëllëgee mu nekk béréb sàngam kon kay nekkatut yàlla jiñ ji ñuy jaamu waaye nag suñu xel moo toll foofu moo tax yàlla di waxee ñun ci tolluwaay woowa mi ngi mel ni rek xadis bi ñuy jàngal naan buñ demee ba nga xam ne guddi gi mi ngi jeex waxtu wu mujj woowu yàlla day wàcc ba ci bi anakan moy sàkku njéggal ma njéggal ko anakan mooy ñaan ma may ko anakan moy ut li muy ut ma may ko ko lépp wax anakan anakan legi yow nga jinekon ci ne kon yàlla dafa nekk ci ñaar waaye waxtu fajar wi lay wàcc ba ci asamaan bu mujj bi ah kon de yàlla tuuti na ndaxte moylan, jamono rek dindi na loolu mooy lan léegi ñun ñëpp xam nañ ni suuf si dafa wërngalu wërngalu gi mu wërngalu tax na béréb bi nga xam ne ci suuf si moo jàkkaarloog jant bi nekk ci ñi ak nekk ci xanaa kon bu fekkee ni yàlla day wàcc ba ci asamaan boobu kon mooy foofu rek lay nekk ndax ndaxte amul benn minute buy romb lu dut am na ñu nekk ci seen fajar waxtu woowu xanaa kon yàlla du fa jóge kon yooyu ne dégg-dégg la yoo xam ne nii nit moo toll foofu moo tax noonu la yàlla di waxee moom waaye nag du noonu la amee kon bu yàlla ne lee wa jaa rabbuka wal malaku leneen la waaye du luñ ko yaakaar wa indéef nag yawma idin keroog bi jahannama ci safara yawma idin keroog yatadakkaru lay waaru al insaanu nit wa anna lahu fan lay tukkee ñeel ko azikra ak waar yaquulu mi ngi naan yaa laytanii yellante woon man qaddamtu ma jiitaloon li xayaati ñeel sama dund fa yawma idin keroog laa yuadabu deeful mbugal adaabawu mbugalam ahadun kenn wala yuuthiqu deeful njoñ wasaaqawu njoñam la ahadun kenn loolu mooy lan amul kenn koo xam ne nii yàlla dalaa nara mbugal bis penc ba mbugal mooma mu teggil la ko mbugal ko keneen te bala yàlla mu ne loolu amut amut kenn koo xam ne deenam ci kanamu boromam ñu war ko njoñ bàyyi ko am keneen ku ñu njoñ bérébam yàlla mu ne loolu amut kenn ku nekk la mu def moom lañ koy laaj de yaa ayyatuha nafsu ee yow bakkan bi almutmainnatu bi di aji dal irjii dellul ilaa rabbiki jëm ci sa borom raadiyatan nga nekk di gërëm mardiyatan mu nekk bu ñu gërëm fadxuli duggal fi ibaadi sama jaam ñi wadxuli duggal jannati sama ajjana suuratul baladi makka la ñaar fukki yaay ñoo ci nekk yàlla na bismillahi irrahmani irrahim laa uqsimu duma giñ sax bi haadal baladi ci bile dëkk mooy makka mu ne wa anta yow xillun ku ñu daganal nga bi haadal baladi ci bile dëkk loolu mooy lan mooy waxtu wi nga xamee ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi def fatxu makka yàlla da ko dagananal waxtu woowu màkka nekk béréb boo xam ne nii mën nañ faa xare tuur fa deret bi loolu rombee nag waxtu woowu mu ne xaraam gi delluwaat na nam meloon ba bis loolu mooy wa anta xillun bi haada al wa waalidin yàlla mu ne maa ngi giñ ci waajur wa maa ak nga xam ne walada jur na ko laqad xalaqnaa bind nañ al insaana nit fii kabadin ci coono ba lépp loo def doon ci wut ak noflaay sax coono moo la cay fekk ayaxsibu ndax jafa joortu moom nit moomu ne an lan yaqdira du ñam kàttan mukk alayhi ci kaw mahadun kenn dafa yaakaar ni duñ mës am kàttan ci kawam ba bindaat ko mu nekk nit yaquulu mi ngi naan man de alaktu dépensé naa alak naa maalan alal ju bari lu badan bu daa ji bari a yaxsibu ndax dafa joortu ne àllam yarahu ndax gisu ko ahadun kenn waxtu muy def la muy def làqatu ci béréb nekk ci diggu ga dugg ca néeg ba tëj buntu ba fay lamp ya dugg ca ron lal ga def lam fay def mu yaakaar di kenn gisu ko yàlla mu ne déedéet alam najal xanaa dañoo deful lawu lahu nit ko moom ay nay ni ñaari bët aha am na ñaari bët yàlla mu ne walisaanan ak làmmiñ wa shafatayni ak ñaari tuñ nga ne loolu lépp am na ko mu nekkoon gis nañ ko ndaxte yooyu ànd ak yow ñoom ñooy ñëw gis penc loxo bi naan doon naa def nangam bët yi naan man maa doon xool nangam làmmiñ bi naan maa waxoon nangam tuñ yi naan maa defoon nangam tànk yi di ko dëggal ak yaram wa su boobaa mu naan ey yow yaram lu tax ngeen di seede ci man te bu ma lakkee nga lakk ñu naan ñun kat na allahu alladi antaqa kulla shayin yàlla mi nga xam ne moo bind lépp te lépp lu mu wax loo mu wax yàlla moom moo moo ñu wax loo moo tax yàlla mu ne yow bi nga yaakaar ni kenn gisula yaa ngi ànd ak sa bët yi yaa ngi ànd sa làmmiñ ak sa tuñ yi te yooyu nag ñoom ñoo lay seede waa day naaw ñu jubal ko am na day ni ñaari yoon ya falaqtaxama moom de bëttul al aqabata yoon wi gën a jafe wa ma adraka lan moo la xamal ma la aqabatu lan mooy yoon wi gën a jafe mu ne mooy fakku raqabatin mooy gorelab jaam aw itaamun wala nga leele lii masrabatin borom a xiif fii yawmin ci bis bu ci doon mu ñëw di yalwaan rek nga yërëm ko jël ko jox ko yatiiman moo xam jërim la daa maqrabatin di borom ak jege ñaale aw miskinan wala mu nekk miskin rek za matrabatin di borom ak fuggule amul dara moo tax muy yelwaan summa topp kaana nekk min alladina ci ñi nga xam ne amanu ñoo gëm wa tawaasaw ñuy dénkante bi sabri ci muñ wa tawaasaw ñuy dénkante bil marhamati ci yërmande ulaayika ñooñu ashaabul maymanati ñooñu ñoom ñooy waa nday joor ya ñooy jëlee seen téere ci seen wàlli nday joor walladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi bi ayatina suñu alquran ji hum ñoom ashaabul mashamati ñoom ñooy waa càmmoñ na ci ñoom naarun safara mu sadatun buri bu ñu kaste ci seen kaw loolu mooy lan mooy safara si moo leeni féete fu ne ndey joor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw kaw ak suuf lépp safara lay doon loolu mooy alayhim naarun musada suuratu samsi màkka la wàccee fukki ay ñoo ci nekk ak juróom yàlla ne wa shamsi giiñ naa ci jant bi wa duhaaha ak leeram ga wal qamari naa ci weer wi ida talaaha ndéem topp na jant ba loolu ñi jàng géographie xam nañ ko mooy suuf si ni dawee di wër boppam te wër boppam bu nekk mooy indi benn bis noonu la ko weer wi di wëree moom suuf si ni muy wëree suuf si loolu it mooy indi ay weer ñu naan weer sàngam dem na dellusi na waaye noonu muy wëree suuf si suuf si di wër boppam noonu lañuy ñuy àndee di wër jant bi loolu la yàlla di wax naan ida talaaha bu fekkee ni weer wi dem na ba topp ko moom suuf si ñuy ànd di wër jant bi wan nahaari giñ naa ci bëccëg gi إذا جلاها ندم يكتكنا والليل جيناتي قديك إذا يخشاها ندم مور كلن دممغ والسماء جيناتي أسمان وما عقلنا خمنا بناها تبخنكم والأرض جيناتي سوسي وما عقلنا خمنا طحاها موكو تلال ونفسين جيناتي بيك بكن وما عقلنا خمنا سواها موكو يملك فألهمها مينكي والكو فجورها أك ndëngteem wa taqwaha ak ragala yàllaam qad aflaha texe na man zakkaha koo xam ne nii sellal na bakkanam boobu wa qad xaaba perte na man ki nga xam ne dassaaha moom moo tilimal bakkan kaddabat weddi woon na samuudu nitu samuuda ya bi taxwaaha ci beew ga idin baasa ba ñu yennee asqaaha ki gënoon a texee di ca seen xeet wa moo doon xudaar ibnu saalif ñu jox ko paaka ba mu gileem ga fa qaala mu ne lahum ñeen leen rasulullahi yonent bi yàlla ba di mu ne leen naaqatallaahi lii de gëlëm ak yàlla la wato wayi leen ko bu leen ko laal wa suqyaaha ak nandalam mooy bu leen ko tegale lenn lu bon da ngeen ko bàyyi nag moom am na bis yéen ay naan ndox mi yëpp jëfandikoo ko lépp lu leen ci neex ngeen def beneen bis ba nag moom giléem gi moom mooy naan ndoxu dëkk bi yëpp fa kaddabuuhu ba mu ko waxee ñu weddi ko fa aqaruuhaa ñu loj giléem ga fa dam dama këpp-këppal alayhim ci ñoom rabbuhum seen borom bi danbihim ci seen bàkkaar ya fa sawaahaa ñu yemale ko wala yaxaafu ñoom de duñu ragal uqbaahaa ak mujëm suuratul layli saaru guddiga màkka la aaya ñoo ci nekk ak benn yàlla ne bismillahi irrahmani irrahim wallayli giiñ naa ci guddi ida yaxsha ndéem muur na ko lëndëmam nga wan nahaari giiñ naa ci bëccëg ida jalla ndéem ida tajalla ndéem uññeeku na leeram ga wa maa xalaqa ak lépp loo xam ne ni bind na ko moo xam azzakara góor la wala unsa wala muy jigéen lan la yàlla di giñ mu ne inna sa'yakum naka seen ak dox ci kaw suuf si la shatta aji wuute la am na koo xam ne nii mi ngi jaamu yàlla waaye am na koo xam ne nii jaamuwut yàlla fa ammaa man ndaal ki nga xam ne ata moo joxe alalam ci aqu yàlla mooy mu génnee ca sarax génnee ca azaka wattaqa mu ragal yàlla wa saddaqa mu dëggal bil ci njekk ne bis penc am na ajjana am aljanna noonu it la safara amee mu ne kooku fu sanu dinañ ko jàppandal lil yusra ñeel aji jàppandal ji mooy dañ ko koy yombalal wa amma man ndaal ki nga xam ne nag baxila dafa nay wastaxna mu doylu bu oomal وكذب مويد بالحسنى تنجك كوك فسن يسره دنكو يجبن للعسران يلعجي جفجي موي سفر وما يغني تدجرين عنه تموم ماله ألم إذا تردى ديم دانونا بدي إن للهدى نك جب علينا ورنا نيو نيال وإن لنا نك نيال نيو للآخرة الآخرة والأولى أكادنا فأنذرتكم موارلين نارا كسفر سوخم نني تلظى أجي تكلم لا يصلاها دجا jaamu illa al ashqa lu aji texee di ji alladi mooy ki nga xamne kadhaba dafa weddi wa tawalla mudaddu alladhi wa sayujannabuha xal sana koo teet al atqa aji ragal ji yàlla alladi mooy ki nga xam ne yuuti dina joxe maalahu alalam yatazakka te dara taxul lu rek daf cee bëgg wut ak cell wa maa li ahadin déet di nekk fa kenn indahu fa moom yàlla min nicmatin ci benn xéewal tujza bu deef na ko fay illa ibtigaa waji rabbihi lu dul rek mu nekkoon daja sàkku anam ak boromam al ala wa di way kawe loolu mooy lan mu ne amul kenn koo xam ne nii dinga def jëf ñu fay la ko lu dut ba koy jëf dafa fekkoon ni yàlla moo taxoon nga def ko jëf yi dafa bari ay xaaj waaye li ñuy bari bari ci ñaar rekk lay mujj mooy jëf ju baax ak jëf ju bon jëf ju bon ji moom waxaale wu ñu ay mbiram waaye jëf ju baax ji nga xam ne nit ki mu ngi koy def dafa bari lu tax mu koy def am na koo xam ne nii li tax muy def lu baax lii mooy da koy def ngir ragal yàlla da koy def ngir bu demee yàlla mu fay ko ko aw yiw te kooku waxoon nañ ci ginnaaw mooy ki nga xam ne da koy def ba pare mu boole ko ak i ragal ndax te xamul ndax yàlla nangu na koom déet kooku genn la keneen ki mooy ki nga xam ne day def jëf ju baax ji ca tax mu def ko mooy daam leneen lum mu ca bëgg amaan na aw tur la ca bëgg wala ay kàddu la ca bëgg wala dafa bëgg ñu tagg ko ci yooyu yépp lépp lu mu ci doon bu fekkee ni yàlla taxut kooku bu demee ci boromam duñ ko ca fay dara bokk na ci li koy firndeel xadis bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon mu ne am na ñoo xam ne nii ñett lañ ñooñu bis penc ñoom la yàlla di njëkk penceel ci jaam ñi mu ne kenn ki mooy borom alal ji dee keneen ki mooy borom xam-xam bi keneen ki mooy ki nga xam ne dara nekkewul ci àdduna lu dul rek fépp mu dégg xare mu dem fa di xare ba shahid ci yoonu yàlla mu ne ñett ñii la yàlla di njëkk pencool bis penc mu ne borom alal ji yàlla danaan ko waa yow loo nekkee woon ci kaw suuf mu ne yow buur li ma fa nekkee woon yépp mooy fépp fu ma déggaan ñu ne ana koy def ngir yàlla ma jël joxe sa saa yu ma déggee ñu naan nañ joxe ngir yow ma génne joxe loolu de laa nekkee woon ci kaw suuf yàlla ne ko dëgg de loolu lépp de defoon nga ko ci kaw suuf daa nga def tànt bu ñu tàntal ne tàntu yàlla la nga joxe ca bu ñu woote waan ca jàkka ja nga joxe bu ñu woote waan ci yeneen béréb nga daa joxe waaye nag ba ko daan def yépp taxuma woon nga ko doon def Dang nga ko defoon ngir ñu ne yow da ngaa tabe dang nga ko doon def ngir ñu ne yaa fi ëppale loolu nag waxoon nañ ko ci àdduna moo doon fay ga fii nag amoo fi dara jël waaja dugal safara kooku kenn la keneen ki mooy borom xam-xam bi ñu ne ko yow loo nekkee woon àdduna mu ne yow yàlla li ma fa nekkee woon mooy jàng ak jàngale rek moo nekkoon sama mbir képp ku ñëwaan ci man buy ndéeb téere dinaa ko ko jàngal di jàngale rek fépp fu nit ñëw fépp fu mënti jóge bu ñëwee ma waxal ko lan nga wax ak lan nga digle gan nga tere loolu de laa fa nekkee woon yàlla ne ko dëggale de loolu nga fa nekkee woon waaye ba nga koy def taxuma woon danga koo defoon ngir ñu ne yaa fi ëpp xam-xam danga koo defoon ngir ñu ne yaa fi ëpp taalibe danga koo defoon rek ngir ñu ne yow ñi la topp kenn topput ñu li toll kon loolu moo taxoon nga ko doon def waaye taxuma woon jël waaja dugal safara mu ne ki nga xam ne moom it dafa shahid ñu ne ko loo fa nekkee woon mu ne man daal fépp ma dégg xare yoonu yàlla ma génn ànd ci ci loolu laa nekk di xare di xare ba dee ci yàlla ne ko dëgg la waaye ba nga koy taxuma woon danga bëggoon ñu ne yow ab jàmbaar nga woon dangaa bëggoon fépp fu nit ñi booloo di wax mbiri xare yewit ngay génnee say cicatrice ngeen di compter naan jam nañ ma fii jam nañ ma fii defoon nañ ma nàngam loolu lépp nag amoon nga ko ci àdduna fii moom amoon fi dara jël waaja dugal safara moo tax kon li nga xam ne moom la yàlla di nangu ci ay jëf mooy benn fokk day nekk jëf ju baax joo xam ne ni yàlla moo ko digle nga def ko defee ko ni ko yonent doon defee moom ak ay saxaabaam ak ni mu ko diglee ba pare boo ko defee nag ba pare bu ci wut menn mbir lu dul yàlla rek nga cay wut waaye bu loolu bu amut lépp loo defit yàlla du ko nangu moo tax mu ne wa maa li ahadin indahu min nicmatin tujza illa ibtigaa wajhi rabbi laala ki nga xam ne nag yàlla moo taxoon muy def mu ne kooku dinaa ko fay ba wala sawfa yarda xal xalsé naa gërëm li nga xamee ni moom lañ koy faye No.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

kalawaat cee fukki aaya ñoo ci nekk ak benn bismillahi irrahmani irrahim allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu yàlla mu ne wadduhaa giñ naa ci yoor yoor wallayli giñ naa ci guddi ida sajaa ndeem dal na maa waddaaka bàyyiwut la rabbuka sa borom wa maa xalaa te bañut la ولا الآخرة نك الآخرة خير موجن لك نيل من الأولى تي عبدنا ولا سوف يعطيك خلصنا لا جوخ ربك صبرا فترضى بدك غرم ألم يجدك نفك لون يتيما غنيكون جريم فاوى متقلا ووجدك مفكون لا ضالا كن يوني ولوون وون اب يونين تدون واخني دا فا رير دا نان وجدك ضالا mu fekkoon kenn yónni wu la woon fa hadaa mu jubal la jox la nubuwa ak sharia wa wajadaka mu fekkoon la a idan nga yaji ñàkk fa aghnaa mu oomal la fa amal yatiima ndaal jirim fala taqhar bul ko not wa amma saa'ila ndaal aji laaj ji fala tanhar bul ko gëdd wa amma bi ni'mati rabbika ndaal ci sa xéewal borom fa xaddis nang ko waxtaane allahu akbar la ilaha illa allah الله أكبر ولله الحمد سورة الشرح مكة لواتي جروم نيتي آية نيوتي نيك يعلن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ndax ubbi wuñu la ka ñeel la sadraka sab dënn wa wadaana ñu sippi an ka ci yow wisraka sag diis mooy say bàkkaar alladi bi nga xam ne an qada diisal na dahraka sa ginnaaw wa rafaxnaa ñu yëkkati la ka ñeel la dikraka sag tudd ba saa yu waxee laa ilaha muhammad rasulullah lañ ciy teg fa inna ma al usri naka ànd nag jafeel yusran ak jàppandal inna ma al usri naka nekk na di ànd ak jafeel yusran ak jàppandal loolu nag yonent bi alayhi salaatu wax na ne lan yaxliba usrun yusrayni amul benn jafeel jafeel boo xam ne day mën a not ñaari jàppandal yu ko séq ndax ci bi dañuy wax ne bu fekkee ni dafa am benn baat bu ñëw nekk maarifa mooy mu am alif ak laam wa baat boobu dikkaat melaat noona amaat alif ak laam su boobaa liñ doon wax lu njëkk la ak lii lenn la waaye bu fekkee ni baat bi dafa ñëw mu nekk nakira mooy amul alif ak laam mu dellu siwaat nekkaat nakira su boobaa lañ doon wax ak bii ñaari mbir la yu bokkut loolu moo tax kon da ngay gis ne fii baatu bu usru dafa ñëw ñaari yoon am alif ak laam kon usru bu njëkk bi ak bu mujj bi benn la baatub yusru nag ñëw na ñaari waaye ñaari yoon yépp benn amu ci alif ak laam kon yusru bu njëkk ba bokkut ak yusru bu mujj bi moom la boroom xam-xam ba doon way mu doon wax naan wa an imaamil mursaliina waaridu lan yaxlibal yusraani usrun waaxidu te loolu di tolloog li nga xam ne yonent bi wax na ko ne ñaari jàppandal benn jafeel daal mënu leen a not ndaxte ñoo ko séq loolu mooy inna ma al usri yusran inna ma al usri yusra fa ida faraxta ndem sottal nga ci sa julli yi ak jaamu yàlla yi fan sab na nga dem nga sonni ndaxte waroo toog rek fekk yaakaar ni dañ la war a yor amul kenn koo xam ne warna war naa toog rek ne day jaamu yàlla ñeneen yor ko mu ne loolu bu leen ko def fa ida faraxta ndem sottal ngeen seen julli ak jaamu yi fan sab na ngeen dem ngeen sonni ngeen uti lu ngeen dundee wa ilaa rabbika jëm dina sorob sa borom nang ko toroxlul di ko jaamu suratu tini màkka la wàccee ñetti ñoo ci nekk الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يعلن بسم الله الرحمن الرحيم والتين جناتي غرب غوغو nga xamne moy gën wa zaytuni ak olive wa turi sinin ak turu sinayi ba nga xamne mo nekkon fa yalla dajé won ak Musa wa hadha al baladi gignayit ci bile rew al amini bu am kóolute muy màkka mu ne laqad xalaqnaa bind nañ al insaana nit fii axsani taqwimin ci gën jaarafeti taxawaay summa topp radadnaahu ñu delloo ko asfala na ba mu gën a suufe way suufe ya mooy dem na ba nga xam ne léegi xamatu dara mënatu dara lépp rek fàtte na ko illa alladina lu mooy ñi xam ne amanu ñoo gëm waamilu ñu jëf alsaalihaati farata yi ba teg ca naafila ñooñu fële hum ñeel na leen ajrun yool xayru mamnuunin bu nekkul bu aji dagg fa maa yukadibuka lan moo weddiloo baadu ginnaaw nga biddiini ci bisub pay ga alaysa ndax nekkut allahu yàlla bi axkamil xaakimiin di gën a xereñ ci way xereñ yi kay yàlla de moom moo gën a xereñ suuratul alaqi makka la wàccee ñaar fukki aay ñoo ci nekk allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbaru walillahi alhamdu moy ñeel beenu sar wu wàcc ñëw ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci alquran ji motax lol lépp nak waxoon nañ ko ci ginnaw kon du jaraat ñu ci jaraat yàlla ne bismillahir rahmanir rahim iqra jàngal bismi rabbika saturu borom alladhi moy ki nga xamne khalaqa bind na xalaqa bind na al insaana nit min alaqin jëlee ko ci lumbu deret iqra jàngal wa rabbuka sa borom alakram mi aji tedd alladi yàlla mooy ki nga xam ne allama xamale na bil qalami ci mbind allama xamal na al insaana nit maa loo xam ne nii lam yaalam xamu ko woon de kallaa dëgg inna al insaana naka nit la yatgaa ndeke nit dina beew an raaw boo istana gisee ya mu woomal yàlla mu ne ndekete nit dina beew bu weedaam dara ndaxte bari na koo xam ne ni li tax nga beew ci kaw mooy danga kaa ëppale mooy inna lisaana la yatga an raaw istaxna inna ila rabbika naka jëm na ci sa borom arrujaa dellu ga araayta ndax dooma solo alladi waa nga xam ne yan day tere abdan ab jaam ida salla ndem julli na araayta ndax dooma solo in kaana dem nekk na alal huda mu nekk ci mu jub moom waa jooju aw amara wala mu digle bi taqwa ci ragal yàlla araayta ndax dooma solo in kadaba ndeem weddina wa tawalla te mu dëddu joxe ginnaaw alam yaalam xanaa dafa xamut ni bi anna laa naka yàlla yaraa mi ngi koy gis kallaa dëgg layin lam yantahi bu daytala wut bàyyi loolu la nasfaan mu ne dinañ ko ñoddi bi naasati ci càmbargay naasiyatin mu nekk càmbarga yoo xam ne ni kaadibatin aji weddi la xaatiyatin defkati bàkkaar mu ne kooku nga xam ne jaamu yàlla tey di tere nit ñi ñu jaamu yàlla bu ma ko jàppee bis penc ci càmbargaam yi laay jàpp càmbarga mooy karawar gi nga xam ne moo nekk ci jëbi mu ne moom laa koy booleel ak tànk ya mu ne kon dañ koy mbankaañ mu ne kooku noonu lañ koy duwalee safara fal yadu na woo naadiyahu péncam ma sa nad'u ñun yàlla dinañ indi azzabaaniyata malaaka yi nga xam ne ñooy nekk ci safara kallaa dëgg laa tuteexu bul ko topp wasjud na nga sujjóot waqtarib nga jege sa borom suuratul qadri saaru laylatul qadri màkka la wàccee juróom benn aaya ñoo ci nekk allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbaru walillahi alhamdu bisub laylatul qadri nekk na loo xam ne daanaka coow lu bare am na ci waaye jaru ko woon li tax coow li jaru ko woon mooy bisub laylatul qadri moom mooy anniversaire u mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla njëkk wàcce alquran muy suratu iqra jibril indi ko mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñun xam nañ ni anniversaire nekkul bis buy tuxu bu fekkee ni dañ ne diwkat date bii mooy anniversaire dat boobu rekk la du ren day nekk fii bu réew mu nekk feneen te bis boobu xam nañ ni ci weeru koor la nekkoon nekkoon na ci fukki fan yu mujj ya mu nekkoon guddik ñaar fukk ak juróom benn la woon kon lu tax mu war a soppeeku boo demee ci réew yu bari ñoom moom sikk amuñ ko ci waaye ñun rek la yàlla nattu at mu nekk rek ñii naan bis la ñeneen ñe beneen bis la waaye jaru ko woon loolu nag moom laylatul qadar yi luy mbiram yonent bi alayhi salaatu daa toog bis saxaaba yi di waxtaan ci seen biir yonent bi xamal leen ne am na benn waay de bokk ci bani Israël moom ak dundam yépp ci jaamu yàlla la ko defoon waa ji dund na juróom ñett fukki at amul bis bu muy toog lu bëccëg gi da koy woor boole ko di xare gi guddi yépp mu ko daan taxaw di ko julli ba fajar noonu la nekkee ci diirub juróom-ñett fukki at yooyu bi mu waxee loolu nag saxaaba yi yéemu ci waajooju ay jaamu yàllaam yu bari yàlla nag daa wax yonent bi ne ko may naa la sa ñu am jaamu yàlla guni yëpp te ñoom ci génn guddi dong lañ koy def moo tax guddi googu ku ci jaamu yàlla te yàlla daal tax nga defin ko defin wu rafet bu la ko yàlla nangulee na nga xam ni am nga jaamu bu yàlla juróom ñetti fukki ak lu topp ki ci genn guddi googu rek nga ko def moo tax nit ki warul sàgganee guddi googu ba bu ñëwee mu nekk di ci yeneeni mbir wala boog nga gis ñoo xam ne nii tànt nañ seenu tànt am kenn ku fa ñëw di ca wax ñoom ñépp ñu toog di ko déglu ñoom loolu ñuy def de baax na waaye la gënoon nag mooy ñu dundal guddi gi ci di julli ak a tudd yàlla bëbët set ndaxte waxtu woowu ñu ngi toog kooku di wax de moom amaan na sax moom mi ngi wax kon mi ngi def dara waaye ñi toog moom defuñu dara te noonu lañuy ñuy nekkee nag ba fajar kon li gën ci guddi gi lu ñu mën a def mooy di julli ak tudd yàlla waaye du booloo ci benn béréb nekk ci yeneeni mbir moom nag la yàlla di wax mu ne inna ñun yàlla anzalnaahu wàccee nañu alquran mii fii laylatil qadri ci guddig laylatul qadr wa maa adraaka lan moo la xamal maa laylatul qadri lan mooy guddig laylatul qadri gi mu ne laylatul qadri moom de xayrun aw yiw min alfi shahrin bu gën ci junniy weer yoo toog di ko jaamu yàlla tanazzalu day wàccal malaayikatu malaaka yi war ruux ak jibril fiiha ci guddi googu ñuy wër suuf si ñépp ñi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla moo xam ci jàkka yañ nekk di naafila wala ñu nekk seen kër di tudd yàlla malaaka yi ñëw ci ñoom di leen wër bi idni rabbihim seen ndigalal borom min kulli amrin ci mépp mbir salaamun jàmm hiya moo nekk ci guddi googu xatta matla'il fajri ba fequk fajar noonu rek la ñuy nekkee de suuratul bayyinati madina la wàccee juróom ñaari juróom ñeenti ñoo ci nekk allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi arrahmani arrahim lam yakuni nekkut alladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi min ahlil kitaabi ci ñun téere wal mushrikiina ak bokkaalekat yi mun fakkiina di teqalikoo xataa taatiyahum lu mooy dafa dikkal leen albayinatu la yubir wa mooy lan rasulun yonent min allahi bu jóge ci yàlla lu muy jàng suxufan téere mutaharat bu laabal fii yaa nekk na ca loolu ñuy jàngal quran moomu kutubun ay atte qayimatun yu yooyu jub wa ma tafarraqa teqli koo wut alladina ñi nga xam ne utu joxeef na leen alkitaaba téere illaa min baadi ma lu mooy ginnaaw bi nga xamee ni dikkal na leen albayinatu layu bir wa wa ma umiru digaleesu leen illaa li yaabudu lu mooy jaamu allah yàlla muxlisina ñuy sellal lawu ñeel ko diina ak xunafaa ñu nekk di jàng walis lépp lu jàng wa yuqiimu ñu taxawal assalaata julli wa yuutu ñu joxe azakaata azaka wa dalika loolu nag diinul qayimati mooy diine jujub ji inna alladina naka ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi min ahlil kitaabi ci ñoom téere wal mushrikina ak bokkaalekat yi ñoom ñépp fii naari jahannama ci safara jahannama la ñuy ne xaalidiina dañuy beelu fiyaa ci safara yooyu ulaayika ñooñu hum ñoom charrul bariyati ñooy kees ji mbindéef yi inna alladina naka ñi nga xam ne aamanu ñoo gëm alquran wa amilu ñu jëf alsaalihaati faratay bari ci teg naafila ulaayika ñooñu hum ñoom xayrul bariyati ñoo gën ci mbindéef yi jazaahum seenu fay inda rabbihim mi ngi fa seen borom jannaatu adnin mooy ajjanay béel tajri daw min taxtiyaa suufam alanaaru yolnde yenti ya xaalidiina way beedu lañ fiyaa ci àjjana ya abadan faw radiya gërëm na allahu yàlla anhum ci ñoom niñ jëf yëpp yàlla nangu na ko gërëm na ko ñoomit it bi leen yàlla fayee dugal leen àjjana waradu ñu gërëm anhu ci yàlla daalika loolu nag li man ñeel ki nga xam ne xas dafa ragaloon rabbahu boromam suuratu zilzilati madina la wàccee juróom ñett ñoo ci nekk الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يالنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت ndem yëngaleefna al ardu suuf si zilzaalaha rëngëm-nga wa axrajat génnee al ardu suuf asqaalaha way diisal ko la ko diisaloon yépp mu génnee ko wa qaala wax al insaanu nit ne maa lahaa loog suuf ba mu génnee ñëpp yàlla mu ne yow maydin keroog tuhaddisu lay solo moom suuf axbaaraha xibaaram yi loolu mooy lan imaamu tirmidi génnee na ci sunan mu ne jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàng alquran ba egsi ci aaya bi naan yawma idin tuhaddisu axbaaraha mu ne yéen sahaaba yi ndax xam ngeen lan mooy soloy suuf ñu ne ko yàlla ak yonentam moo ko xam mu ne soloy suuf mooy suuf day seede ci jam jaam moo xam góor la wala muy jigéen lépp li nga xam ni defoon na ko ci kawam mu yow waxtu bis sàngam diw mii di doomu diw ak diw moo fi defoon nangam ak nangam ci sama kaw mu ne loolu la yow may din keroog tu lay solo akhbaraha kibaram bi anna rabbaka naka sa borom aw xaamoo waxyu lahaa ñeel suuf yow may din keroog yasduru lay gongee ko ay kuréeli kuréel annaasu nit ñi li raw ngir waneef leen amaalawum seen jëf ya fa man yaamal képp ku jëf na mithqaala darratin lu tol ni darra mooy atoom cig tuuti bët sax mënu koo gis waaye ci ay machine rek ñoom ñoo la ko mën a wan mu ne lu tuutee noonu te nekk xayran di yiw yarahu nit ki dina ko fa fekk wa man yaamal képp ku jëf mithqaala darratin lu tuuti ba tol ni darra charran aw ayib yarahu dina ko gis de suuratul aadiyaati màkkala bismillahi irrahmani irrahim wal aadiyaati géej naa ci fas yooyu nga xam ne ñoom ñooy daw ci xare bi ba seen dënn ya di fuur dabxan ci fuur fal muriyaati géej naa fas yooyu nga xam ne ñoom ñooy daw ci xare bi ba seen weya di wokku doji xadaxan ci wokk fal mughiraati géej naa ci way lokk yi ca suba faasar nañu jeqi bii ak moom naqan pënd fa wasat nañu digg doomu bii ci moom jamaan ci mbooloo innal insaana naka nit laka nuudun way siis la li rabbihi ñeel boromam mooy nit moom daal dafa bëggul di def lu baax ngir boromam wa innahu نك على ذلك تي لولو لا شهيد اجي سيدي لكم وانه نك لحب الخير تي يو موي علال لا شديد كو تي تارلا افلا يعلم ندخ نيت موم دا خمت اذا بعثر نيم جنيف نكو نيم دكليف نكو ما في القبور تي نيك تي ليب تي باميل يي وحصل نيوريف ما في الصدور ليب نيكون تي دنيا ان ربهم نك سين بروم بهم تنيون يومئذ كرب لخبير أجدن كم بلدين اللهم صل وسلم وسلم الله عليه